jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy lu seen ànd ak seen chaîne de télévision la 2STV euh, tey dellu si waat nañ ci plateau samedi gis ngeen liggéey bi nga xam ne moom leen leen defal ci biir euh, koor gi dem def ay plusieurs reportages sur le terrain nekk ak askan wi dund ak ñoom seen i jafe-jafe demoon nañ fi Kër Moussa gis nañ fi spéculation foncière bu doy waar 691 hectares yoo xam ne filfili da ci bëgg teg loxo ba ñu noppee dem nañ ci Malika mais Malika nag jur na coow lu bare bare dinañ delluwaat Malika parce que dafa bëri ay révélations yu ñu ci jot par accomplissement yu doy waar doy waar yoo xam ne jéggi na dayoo moo tax euh, ñuy wax ne dinañ dellu si waat ci reportage boobu parce que indi fay leeral yu am solo Tivaouane Peulh gis nañ fa kër yoo xam ne dañ ko toj aussi euh, defoon nañ fi reportage ba ñu noppee tamit demoon nañ Bargny euh, dafa leen benn reportage ci centrale à charbon loolu rek di wane ne changement bi nga xam ne bëggoon nañ ko def ci biir samedi mag jege askan wi dund ak ñoom seen i jafe-jafe lu am solo la tamit ci émission bi tey nag ñu dellu si ci plateau bi parce que dañoo nammee waxtaanee lu am solo ci réew mi tamit Ah, war ñu indi ay leeral yu yoo xam ne Sénégal yu bëri ñu ngi koy xaar moo di wàllu pétrole ak gaz bi sénégalais jàpp na génn na ci réew mi pétrole ak gaz boobu génn ci réew mi mu jur coow werante bi bari lool lool lool ñu bëri wax ci seen xalaat gouvernement bi di indi ay tontu Ousmane Sonko bind téere boo xam ne mën nañ ko jàppee livre bu didactique la parce que jàngal nañu lu bare bari ci li nga xam ne moo di régime pétrolier bu am Sénégal côte minier beeg nan la ñu joxe permis euh, d'exploration yeeg yooyu yëpp wax na ko ci téeram bi wax ñu tamit ban jàngat la def ci li nga xam ne moo di contrat Petro-Tim bu jur coow li ak yeneen bloc pétrolier yoo xam ne joxe na ko ak it responsabilité ku nekk ci loo xam ne moom da ko jàppe ne scandale mënu ko gën a rëy ci réew mi tey moom la ñuy waxtaanee.

di am mbégte dellu si. am possibilité waxtaan ak sénégalais yi parce que téere la ñu bind. téere nag boo ko bindee da ngay def promotion bi da ngay da ngay xamle ne ci biir téere bi donc su ñu amee opportunité toog ci plateau wax ak sénégalais yi toujours lu baax la ci. laaj bu njëkk bi est-ce que may nañ la téere bi daanaka génn ci réew mi nit ñi mën ko jot parce que déggoon naa coow loolu. ñu ne est-ce que dinañ ko nangu wala duñ ko nangu commercialisation téere bi nga xam ne ku dem ci euh, librairie mën ko jënd ak foo mënta dem mën ko jënd est-ce may nañ la ko. waaw loolu bu njëkk bi mooy leeral bi ma leeraloon rek ne ñun mosuñoo taxaw ne téere bi dañ koo tere Sénégal xam naa ni fi coow li jóge ak ni ko yenn nit ci presse bi yëkkate woon moo andi loolu euh, bind nañu téere bi génne nañ ko. benen défi moy ñu duggal ko Sénégal ba Sénégalais parce que bitim rew ni ñaa ngi koy jënd. Euh, en masse di ko lire mais wa Sénégal lañ ko destiné avant tout bien que ñukoy jënd bitim rew ay Sénégalais lañ donc tay yalla def na bi ñu déposé léegi def na presque euh, wèr wala lu ko jege. Mhm. ñu ngi don jaabante di dem direction surveillance territoire ak euh, delusi ba démb lañ ñu wo nañu jox nañu autorisation. nangul nañ livre nangul nañu livre bi bu wa nak ak euh, librairie yi may liggéeyal fii dinañu def ay commandes yo xamné mu ñëw jaare ko douane euh, def procédure normale bi pour que fii ak fan yu néew livre bi mëna disponible ci librairie yi dinañ def aussi cérémonie de dédicace nañ ko défé won Paris pour euh, am possibilité aussi gëna gëna expliquer yenn yenn détails ci livre bi. très bien mm. ñu xuus rek ci waxtaan bi comme tambali nañ ci ba paré Ousmane est-ce que mën nga ñu wax tay ji lan mo sabab. nga toog ba ci yàgg coowul pétrole bi bari nga ne damay bind téere parce que ku bind téere daanaka da ngay wóolu information yi nga am lan moo sabab nga bind téere bi. waaw li andi bind téere bi damay wax ni euh, bi may jël décision ne dañuy bind téere bi fekkoon na ma nekk ci beneen téere bu ma doon bind boo xam ne euh, ci suñu wàllu vision gis-gis. Mhm. li ñu war a def ci Sénégal loolu la loolu la gënoon tënku. mais comme coowal bi coow li dafa taxaw ba pare bëri. Euh, di jollee fu ne nag yu mel ni su amee euh, euh, ku ne dina ci wax waaye comme enjeu public la boo seetee dafa amoon ñaari camp ñi nga xam ne dañoo jàpp ni def nañ lu ñu waruloon def ci suñu pétrole te ñun ñu bokkoon ci am na ci ay acteurs politiques am na ci ay ay acteurs citoyens mhm. am na ci citoyen lambda ak ñëpp ak ñi nga xam ne dañ doon weddi loolu mooy ñi ngànk nguur gi tey mhm.

xam nga wax moom da ngay xëy def sa conférence de presse tey suba ñoom ñu génn def seen déclaration gannaaw suba nga ñëwaat wax mais wax day naaw. Mhm. ñu ne nag baax na lu mel nii ñu taxaw bind parce que mbind bi moom daf fiy des te boo xasee ba bind ku la bëgg a weddi day bind ni yow wala mu accepté ngeen ñëw toog def débat ma ne kon te loolu bokk na li manqué ci suñu culture politique et citoyenne ñun. Mhm. mooy li ñuy bind bëriwut donc ma ne. lii dafa dafa dafa jar nga bàyyi lépp loo doon def tëju bind loo xam ne ilaa yow mi diin dina fi des te jamono jii ñu nekk ku ko bëgg a weddeeti il faut nga def lu mel nii wala nga accepté te loolu yàgg nañ koo laaj ñun ne leen balaa ku nekk di toog ci côté ci wetam di def ay déclaration te ñoo daje yow nga invité fii ñoom ñu toog ministre toog fii Ousmane ko toog fii Nous, avons une ngànk délégation depuis ministre le conseil technique Nous sommes d'accord avec ci débat Nous, ñun ñoo demandé. débat je lance solennellement fi, un appel ma lancer un appel c'est important. Hmm. li pour édifier l'opinion nous avons un accord joxe ne pour parrainer na débat. kon beneen camp bi tamit bu nekkee ne d'accord nañ ñu ñëw ci débat contradictoire opinion bi jugé donc c'est important li nga wax nii. voilà loolu loolu ci démocratie ci démocratie dafa baax la war a doxee. Mhm. Euh, mooy balaa kenn ku nekk deg boo seetee léegi ay nit la ñuy yebal keroog invité nañ ma benn télé defe naa ma ma waxtaan fa waxtaan bu gudd. le lendemain ñu gaawantu yebal kenn kenn. Mhm. koo xam ne moom nee na xam-xam lépp ci pétrole la màcc. te kooku man jàpp naa ni sax waratul woon am sañ-sañu toog di wax. ci wàllu pétrole muy Serigne Boub defe naa la tudd ndax koo xam ne yaa ngi nekk ci état nekkoon directeur général Petrosen. Mhm. ba tey nga nekk PCA SAR waaye wëlbatiku dem nekk ci conseil d'administration Ben, société bu ñuy wax Trade Atlantique boo xam ne jox nañ ko suñu bloc jifeer bi di lekk fii di lekk fële. conflit d'intérêt di défendre intérêt état di défendre intérêt privé non li wax ni attention li wax ni révélation bu doy war mais kooku amul crédit xolal dama dama bañ ba andalé gis nga ki conseil d'administration trade atlantique la mi ngi seen site internet bo ubbee deuxième page bi ko gis du Serigne Mboup. Mhm. kooku tay amatul donc en même temps qu'il est euh, PCA SAR mi ngi mi ngi conseil d'administration trade atlantique bi nga xam mom lañu jox bloc de Jifeer ci suñu pétrole. conflit d'intérêt conflit d'intérêt la cumul la. c' mhm. interdit par notre loi. ñooñu su dee tey ñoom rek a des pour mu ñëw ne dañuy defendre position état bi dama ne da jaaxle am na ci beneen côté bi parce que amuñu crédibilité bu war a mun a taxaw di ñëw di wax ak sénégalais yi donc ñun depuis le début donc si l' état doit mu war a atte ci diggante <laughs> euh, tri Atlantique oil ak euh, ak état bi. ban position lay taxawé mais dafa dul jafa jaaduwul sax tay xam nga ni conseil d'administration président conseil d'administration, administration yor salaire yu gëna doon ci état bi. Mhm. ba paré di dem défendre intérêt privé di fa di fa comp di fa lekk. donc yu mel non mu am Sénégal Sénégal dafa bëri parce que ubbi nañu légui démocratie lañu nek mhm. ubbi nañu ouverture médiatique kenn ku ne suñu la tàllalee micro nga mais Sénégal dañu wara di settantal di xol ki wax moy kan ki wax fan moy jaar-jaaram ba ci walu politique sax ño xamné

Euh, laata loolu ñu évacué balaa ñu voilà ñu évacué loolu ma ne bi ma ko bindee ba noppi mhm. dama ne téere gi ci weer laa ko bind waaye bind naa ci loo xam ne gëm naa ni du lu ñu mën a dindi fii waaye nag comme ñoom ci weddi la ñu dëkk nañu ñëw ñu def débat contradictoire ñu def wala su dee am na lu lu ma bind ci téere bi ma waroon bind ñoom am nañu ay ay jumtuwaay ak ay ay matuwaay yu mën a jël mais nañu ñëw fi ñu def débat te su may wax débat it waxuma ñu ñu yónni n'importe qui parce que da ngay yónni ku xamul dara ci mbir mu ñëw fii polluer débat bi yor la meñam hmm. waaye moom ministre bi yoroon mbir mi muy Aly Ngouille Ndiaye te tudd naa ko fi lu bëri. Hmm, hmm. wax responsabilité ci ñëw euh, moom euh, euh, amadu Ba nga xam ne. mooy ministre de l'économie te am lu fi xew ci wàllu impo gi. ma wax ko moom Abdallah Boun Dionne. te mu taxaw fii def conférence de presse joxe ay information xam xam ne méngoowul ak dëgg.

bis bu ne ñu feeñal dara bis bu ne ñu wax ci nit lu mu def wala lu xew ci bërëb sàngama luy demee noonu mais def laa jàpp nañ ni ñoom seen corporation kenn waru cee tudd te damay fàttali ni presque quand même service public la comme service public yëpp euh, citoyen bu nekk am nga ci sañ-sañ am ci gis-gis man nag mosuma dajale journaliste yëpp ne nii lañu mel parce que am naa tuuti intelligence xam naa ni àdduna du am benn catégorie boo dem ba fekk fa lépp ñuul wala lépp weex mhm. waaye problème moom am na problème général la Sénégal ni mu amee impôt domaine am ko douane am ko euh, présidence de la République am ko assemblée nationale Non la amé ci presse bi. Mhm. ta ñom duñ ma wéddi ndax ñom ñu ngi koy joytu def nañ fi ay ay marches yo xam man mi invité nañ ma ci. donc li ma wax ci livre bi d'ailleurs am na ci passage bu ma wax ci presse. passage passage bi ma wax ci impôt domaine bi ma bokk man nga xam ne bind na ci lu ëpp six pages waxuma lu toll nonu ci presse bi. parce que tamit am réew suñ ko bëggé défar mhm. il faut ñuy waxtaan te tek waxtaan gi ci dëgg waaye duñu am.

jóg naa fi dem Paris pour pour génne sama livre presse bind ne Ousmane Sonko nee na livre bi dañ ko interdire te presse woowu ma laaj ma sooy sooy wax lu mel noonu ñaar nga mun a laaj ki bind livre bi. wala wala waa DST mais presse woowuma laaj ma.

dem talal micro ñeneen ba pare Usman ne Ousmane Sonko ne leen livre bu dañ ko téré xam nga loolu du professionnalisme te yoy su dañ koy wax parce que ñu wax li li doxut impôt men wax li doxut ci port bu wax bu presse amé pro ñu ne kenn du ko tudd parce que ñom ño yor cadeau gi so suñ la suñ la suñ la suñ la tongalé nga am problème mais at mbir mi du doxé nonu mais man xamna beaucoup de journalistes yo xamné gëm na mm-hmm. ni ñoo mu gëna juk gëm na ni c'est des patriotes bëri na ci presse bi ci ñu fi nekkoon ci mag ñi comme ñi fi nekk ci ndaw ñi. absolument donc loolu je mhm. crois que ay malentendu la ba pare nag amalgam bi am mooy après ku nekk da nga ko def sa affaire bopp. ñii naan bu leen jënd livre bi. ñii naan bu leen xool xam nga loolu ba léegi day firndeel li mu wax rek. c'est notre aspect c'est notre aspect de de bi ñeent pàcc nga ko def découverte pétrole nga njëkk waxtaanee. nga ne du lu bees. parce que mm. yàggoon na am ay études yoo xam ne wane woon na Sénégal. danaka amna ay réserve pétrole yu bari amna sax kenn ko xamné taw temps la won xam moy wax né Sénégal amna pétrole mako wax. wan <laughs> wan yaa ngi <laughs> <laughs> waxon na deug sax dañ ko doon rétan rek waaw ndeysaan durbel bu wax ne Sénégal amna pétrole mako wax. Hmm. yayi ngi fàttaliku koku alors découverte pétrole bi bu ngui koy euh, historicité bu ngui koy natt ak ba légui lan la. waaw pétrole bi nee naa 1952 la ñu commencé prospection pétrolière au Sénégal 1952. 52 2016 lu fait xewna uh-huh. pétrole du avons yon du fa uh-huh. les années 60 Nous avons ni. pétrole ba rentable parce que pétrole bu 10 la won xawona sori uh-huh. ñu alors sax créé entente euh, Guinée-Bissau ak Sénégal pour gérer conjointement ce pétrole là non, non nous. découvrir ay poche pétrole fi, gaz fi, léeg ñu ne c'est pas exploitable ba 1998 bi ñuy découvrir gazu Gadiaga bi nga xam ne que c'était exploitable c'est exploité actuellement par mhm. Forteza ci anam yoo xam ne anam yu lëndëm la wax ko ci livre wax nga ko ci ci dernière partie du parce que parce que d'abord eh, anam yi ñu joxee Forteza pétrole bi xam nga pétrole dafa plus gaz bi dafa gaz et pétrole dafa am plusieurs phases dafa une phase de recherche phase d'exploration phase exploitation développement ensuite exploitation enfin phase bu que dafa am nu code pétrolier tëggee. Mhm. donc ki nga xam ne day ñëw war a suñu partenaire muy entreprise bi ñëw euh, selon limi andi la set seet lan ban type de contrat la wara war a am ak ñoom or soo jëlee gazu Gadiaga gabi, moom Forteza du moom mo découvrir gaz bi du moom moo def recherche bi du moom moo def découverte bi. kan moko découvrir. Petrosen moko don def moo moo def mo def les les forages ba découvrir yëpp donc mom contrat d'exploitation lañ ko jox directement. ba pare pas d'exploration donc choono gi yëpp gi ne ci pétrole nga xamné moy soy soy sooy ndax fi amna pétrole am déet nga xamné xaliss bu bëri nga ci dugal te jël risque bu bëri te mhm. amo garantie ni di nga gis mhm. phase boobu mo gëna metti mom lolu loolu fekkewu ko biñ ñëw di ko jox suñu pétrole dañ ko jox 70 gaz bi Forteza Forteza mais loolu régime Wade la non. régime Wade ñu jox ko pour cent gaz bi ne Sénégal 30 pour cent lañ ci am ma ne loolu problème am na ci. parce que ci koo xam ne lu ci métti woon bee ko def ñun ñoo ci dugal suñuy moyens ñoo ci dugal si ak suñu lempo Sénégal ak peut-être ay partenaires yu Petrosen doon liggéeyal pour def liggéey boobu. Mhm. ñu jox ko ko tey jii mu ngi koy exploité am na tableau yu ma def ci ci ci livre pour wane ni pratiquement Sénégal gagné wu ci dara même ci wàllu impôt liñ ciy na 500 millions. Mhm. ci at bi. ci loo xam ne gaz bu bëri la boo xam ñu ngi koy exploité léegi du bet dootul sax benn benn teenu gaz mais am na yeneen yu ñu foore ñaar gajaga deux am na ak yu demee noonu ñu ne loolu nébuleuse la boo xam ne sénégalais yi yéeguñu ni ñu ngi exploité gaz fii euh, gajaga ci bloc bu ñuy wax bloc de Thiès euh, régime Ablaye Wade balaa mu fiy jóge c'est vrai ñoo ko joxoon ci condition yi waaye bi ñu amee suñu crise pétrolière crise bu 2008 bi mhm. ñu dem ba am problème mu courant Ablaye dafa jëloon benn décret

la Forteza dem cour suprême attaqué décret boobu ñu kase ko ba tay ji Forteza mi ngi yobbu gaz bi fu ko neex. en 2008 ba 2012 Forteza amutone sañ jaay gaz gaz bi. Sénélec rek la ko don jaay pour ñu alimenter sun tribune pour waaw pour ñu mun a 2012 la attaqué décret bi bi maki toogee dal ñu tek ci quelques semaines wala weer la dem attaqué décret bi euh, ñu kase décret bobu te décret bobu liko code pétrolier moko permettre article 53 ni euh, wala 54 ni suñu amé problème mën nañ né pétrole bi ñuy produire Sénégal ak gaz bi exclusivement dañ koy andi ci marché Sénégal bi donc suñu jëlone gaz bi jéx ko Sénélec mu dugal ko ci turbine à gaz yi tay tax ñu wañi prix courant bi mhm. wala ñu am moins de coupure wala problème mel nonu ñu wan ñu ko et puis day wañi aussi suñu facture pétrolière parce que dañuy importer ji li ngay importer euh, coût yi ci yok ba tax mu cher bu dee dañ ko jëlé fi directement c'est moins cher mais tay kase nañu décret bobu Forteza di jaay ko neex donc lolu muy découverte 98 ñuy dem dem dem ba ñu mujjé découvrir diggante 2015 ba 2016 bi li tax ma ma andi won historique bobu moy bo déglo sen wax bo déglo Mohamed Boun Abdallah Dionne muy def conférence de presse dafa melni mais parce que Macky Sall dafa ñëw rek yoralé ay ay ay ay mallette yo xamné pétrole la ci newoon ba bi muy def conférence de presse dafa né c'est seulement en 2016 après moi en français tombé waral ay gaf uh-huh. avec l'arrivée du président Macky Sall qu'on a découvert du pétrole mané nak bax nañu fatali sénégalais yi déméwul noonu te ay études yu deugure a euh, cité service géologique américain uh-huh. nga xamné du waxantu ci caaxaan dafa wax pétrole bi Sénégal, Sénégal ba joxe quantité yi chaque année rapportam man yorna rapport yi mi guéné année par année dafa wax Sénégal le Sénégal, ba euh, euh, bassin Sénégal bi li moo fa nekk lu ñu évaluer ci cap capacité pétrole lii moo ci nekk li ñu évaluer ci capacité gaz donc loolu du lu bees te Macky Sall mënu ko woon bañ a xam ndax Macky Sall nañ fàttaliku ni ingénieur géologue la nekkoon fi agent Petrosen. Mhm. nekk fi directeur banque des données banque des données Petrosen nga xam ne ñi fi doon def prospection ak étude yëpp rapport yi ci moom lay jaar nekk fi directeur général Petrosen nekk fi ministre de l'énergie et des mines donc lépp xamoon na ko biñ koy fal président

état bi dafa def un code pétrolier incitatif parce que exploiter pétrole dafa 10. Hmm. alors est-ce que nous nga dellu si ci code pétrolier bi lan la wax tu ñuy type de contrat yi nga xam les gars yi génn nañ ko ñu méngale li code pétrolier bi wax contrat yi est-ce que méngoo nañ. parce que hmm. foofu nag nous ñuy mën a ndax a problème de transparence ou pas. La question que dafa am solo parce que euh, daf ñuy de la ci dinaa ci moom lay conclure ça, mais xam nga. euh, en matière de législation euh, su dee yow da nga attirer investissement direct étranger yi. Uh-huh. te yow amoo avantage comparatif Vous avez da ngay def souvent li wax des codes incitatifs mooy code yoo xam ne da euh, fay da fay da këppatal da naxtaan pour nit ñi uh-huh. ñëw. da nga nan par exemple da yi bu ñu ko gisee daal dañuy. dañuy yàkkamti ñëw moy da nga nan man sama code pétrolier bi so ñëwee Sénégal gaal war fee def recherche pétrolière doo fay dara ci impôt par exemple uh-huh. soo soo soo soo waree soo soo waree def exploration uh-huh. doo fay dara ci l'impôt bu ko defee kooku su ñëwee xool gis ni ah fii de su ma fii def liggéey bi du ma fay dara l'impôt te su ma demoon Guinée Bissau dinaa fa fay impôt wala su ma demoon Côte d'Ivoire dinaa fay impôt di nga ne ah xaaral ma dem Sénégal moo gën a intéressant uh-huh. benn élément la ci du loolu rek mooy tax nit ki ñëw mais loolu bokk na ci a tax nit ñëw nga ne dina def li ci walu devise ak change. Mhm. defal la ci ay avantages yoo xam pour mu yomb ci yow. dina def lii ci walu euh num tudd flexibilité ci walu emploi ba nga xamné recrutement mode de recrutement yu oyof la wala licenciement bolol loolu mën nga ci toucher sa code du travail. Mhm. loolu lañuy wax un un cadre législatif incitatif pour nit ñew mhm. Sénégal bi code bi mu code 1962 defe lañu jëk ñu def. ben ben loi ci pétrole bobu ordonnance won du won code. Nous ngi ko codifié en 1996 mooy dajale loi loi sectorielle yi ñu amoon wala ordonnance yooyu def ko document codifié ko muy code pétrolier code pétrolier 86 nous ñu ngi en 1998 le code bii daw ba Le jii. code Bobu. di est-ce que faut sax nous ko réactualiser. C'est foofu laa bëggoon daanoo c'est-à-dire code boobu la ca c'est yépp mooy ay dérogation la ñu def pour que investisseurs yi mun a ñëw ba nga so mengale code bobu ak droit commun da ngay gis ni amna différence bu reuy l'entrepreneur ordinaire bo xam mi ngi yëngatu fi ci walu BTP wala mi ngi yëngatu fi ci walu banque wala yéme nonu mom condition yi ñu ko tek ci walu impôt ci walu emploi ak yenen bokul ak ki nga xam ne dafa waroon ñew yëngatu ci pétrole parce que dañ ko bëggon ñombalal mi pour mu ñew dañ ko bëggon mepp mhm. code bobu mom moy daw ba mu andi laaj bi nga wax léegi moy lan motax Sénégal tey dem nañu ba ne Sénégal gis nañ fi pétrole gis nañ fi gaz te bis bu nekk découverte yi gën a bëri mhm. lan moo tax président Macky Sall ak nguuram di parax-paraxee di yàkkamte di joxe bloc yi ba léegi bi ñu demee ba gis ba mu leer ni am na xam nga ku gisagul ak ku gis bokkul soo gisee ñëpp dañuy daw si la preuve pétrole ñi ko entreprise yi liggéey ci pétrole lañ leen diviser en catégorie dafa am lu ñuy wax les majors mhm. ñoom mooy ñi ëpp doole BP mhm. euh, euh, nu mu Exxon euh, Total ainsi de suite mhm. ñooñu ñooy ponkali. yi soo jógee ci ñooñu am nga mhm. les les les les juniors ñoom genre Cosmos yi dañ leen considéré comme junior di nga am les indépendants ñoom ñoo gën touti. am les compagnies nationales tey soo demee Petrobras nga xam ne brésilien dañu fexe ba am compagnie nationale bu am doole ba léegi day def li ñeneen ñi di def soo demoon euh, Sonatrach en Algérie wala soo demoon Aramco euh, en Arabie Saoudite Nous dañu am ay compagnie nationale yu am doole Non, lañ ko Sénégal bu d'or door ay 1952 vers les 1978 Majorité yi dañ fi daan nek Shell nekkoon na fi Total nekkoon na fi bu njëkk ba sax le woon Total mhm. amoon na Copteo après mu def jël ñu def ba Total fusionné avec Elf yu mel mais nous avons ñu vers les années 80 dañu Sénégal pétrole amu fi Sénégal ça ne présente pas d'intérêt ñu dem seen yoon moo tax soo seetee ay major ay ay junior comme comme euh, Cosmos ñoom ñoo découvrir pétrole Sénégal parce que seniors yi dañoo demoon major yi dañu demoon ba. intéressé dañoo xaddi mais bi ñu découvrir rek ba léegi. Hmm. lan nga gis. ñoom ñoo rëy. mobile daw na total daw na léegi ñu ngi naan am intérêt donc bi nga découvrir ba intérêt am ñëpp di daw si da nga waroon dëgg bal bi ba pare def dara. sama code pétrolier bi nako modifier modifié. xool code parce que code bi baxul ci Sénégal. dama ko defone pour inciter nit ñi ñëw. ñi ma jox mom jox naa ci code pétrolier bobu waaye ñi di ñew ni, na deug bal bi modifier radicalement sama code pétrolier euh, truc suñu sétone deug deug sax mën nañ ne tay comme en 2012 dañu def modifier code général des impôts def droit commun incitatif mhm. lenn li ci walu fiscalité mom mun na dugg foofu mais la ca des parce que suñu duggee ci débat technique bi naa la wax ni li ëpp ci pétrole du fiscalité waaye mi ngi ci partage production bi te partage production bi ni ñu arrêté barème yi baaxul ci Sénégal donc lan moo tax malgré tout régime Macky Sall gis nga pétrole boo ko amee ñaar wala ñett war na tax nga baña a ci joxe lépp té tay ñu ngi am 18 blocs au Sénégal régime Macky Sall régime Abdoulaye Wade ñeenti blocs la joxé won régime Macky Sall joxé na lu ëpp 12 blocs ci ñenti at wala juroomi at yi région yi war a tax nga ne xaaral ma taxaw seetlu benn bi mooy sama code baaxul c'est pas à l'avantage du Sénégal naa taxaw ma réformer code bi ba mu gën a nekk à l'avantage du Sénégal ba bloc yeneen yi may joxe. Mm, Sénégal yi gis suñ ko defoon tey li ñu jox total te waruñu ko woon jox total boobu mën nañ ci dugg après. ci base boobu lañ ah, ko war a joxe ah duñ ci dugg après. non non dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw damay bañ perdre fil bi. Mm-hmm. nga ne donc bàyyi ma defaraat sama code defar code bu baax yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko. keneen kuy ñew rek naal la ne ah ci code bi la la mëna joxe pétrole parce que leer na ma ni amna pétrole ak gaz ñaar bi won tax ñoja baña parax paraxee waru ñoo def une exploitation euh, intensive du pétrole parce que pétrole d'abord euh, ñu def comme am comme américain yi ñi def quoi. waaw dañuy jëli pétrole fenen bayi sen pétrole. non mun nañu am sax li soxla ñun parce que duñu gros consommateur mënuñu comparer suñu marché ak marché américain mhm. mais mënon nañ né parce que ñun am nañu yenen possibilité. le mix énergétique bi. avons utiliser yem pétrole bi les générations futures sauraler les questions environnementales parce que l'exploitation, bi un de na pas gi problème. Mhm. mais ci diggante bi aussi possible développer solaire bi les énergies renouvelables. Mhm. am possibilité développer l'éolienne bi am possibilité possibilité développer beaucoup d'autres euh, euh, euh, produits mun nga dem ba énergie domestique bi sax dootul sur la base du pétrole mais day donnent sur la base de ces produits là bu ko defee yow sa pétrole ni ko ni ko norvégien yi def une projection sur une très longue période d'autant que contexte bi ñu c'est pas favorable parce que gis nga baril pétrole li muy jaar léegi mhm. parce que américains yi dañuy produire pétrole et gaz de schiste ils sont devenus presque les numéro un du monde daf leen di permettre ñoom ñu jouer sur le dollar casser le dollar parce qu'ils ils importent pas comme ils ñu doon actuellement ils doon exploiter prix bi baaxul ci ñun même les gros producteurs ay Arabie Saoudite ay Venezuela gis nga seen crise mhm. ñom ñep son nañu mais lan mo waral ci contexte Le gouvernement Macky Sall continue di parax paraxe di wër rek di signé ay ay ay ay. ñaata contrat lañ signé pour pour yow exactement. xam nga ñom comme ñom opacité la ñuy gérer man bima défé sama décompte ci livre bi gisoon na ni euh, signé nañu lu mat 15 contrats actuellement 15 blocs joxé nañ ko ëpp na 15 contrats parce que yenn blocs yi da nga ciy fekk plusieurs contrats mais 15 blocs joxe nañ ko ci 18 yi te ñu ngi continuer joxe boo saytee total benn question sax total total ñu ngi ko jox mais total kenn xamul ñaata ñaari blocs yi ñu ko jox ban la nee nañ ñu benn bloc bi. bu Africa Petroleum bu Africa Petroleum bu Rufisque boobu rek la ñu joxe tur bi seet naa surtout le monde seet naa surtout le Figaro seet naa suñu presse bi dañ naan surtout Rufisque bu ñu joxoon Africa Petroleum et mm-hmm. un autre bloc beneen bloc bi ban la communiqué wuñ ci. mooy ñoom dañ lay tontu toujours ne contrat yëpp génne nañ ko. génnewuñu benn dañoo génn dañoo seppi quelques contrats yu leen arrangé woon moom ngay fekk ci site gouvernement bi li ëpp ci contrat yi génnewuñ ko ñun contrat yi man yenn contrat yi yeneen anam laa jaar pour am ko mais nekkul ci site gouvernement bi nekkul ci site ITIE bi donc dañuy seppi lu leen arrangé. kon ci 18 contrat yi am na contrat yu nekkul ci. il y a deux semaines euh, ñu invité ma euh, waa ITIE ne dañuy def benn panel sur le pétrole ma ci ma dem. premier ministre inauguré la nous allons publier tous les contrats Je y ko Il y yow un an une conférence de presse tous les contrats sont publiés vous allez publier tous les contrats parce que publier les contrats, c'est ce que du lu ñu code code pétrolier mhm. contrat bu ñu signé décret d'approbation bu nous signé arrêté bu ñu signé pour autoriser une cession soit de droit soit d'action nous ko publié. publier

xam nga ci contrat d'exploration nañ ko jël étape par étape après ñu jël cas concret moo gën waaw après ñëw ci Petrotim bëgg naa ñëw xam nga fii traité naa fi Petrotim traité fi Ovidi Tender traité naa fi mhm. euh, Forteza dama jël ay cas noonu rek parce que bi may bind livre bi total ñëwagul woon mhm. livre bi mu génnee ba noppi la total doog a total mun nañ ci wax tamit euh, fi ma ko teg mooy ko bien que mon président de la république mooy signé décret d'approbation, le décret il y a un contrat bu ñuy signé avec Petrosen mhm. le contractant euh, ministre bi validé ko mon président ça day validé Le contrat boobu joxewul joxegul nit ki droit il faut que après suñ joxé nit ki contrat mu am période d'observation ci limi def ak ni respect de ses obligations Nous doga un rapport dem gis président de la République ko ah président fii de lépp jaar na yoon signé mu signé mais so jélé mo jël kaw pétrotim pétrole rek d'abord, pétrotim petro ñu kon jox suñu pétrole. pourquoi parce que matal matalul charte yi ndax euh, article 8 code pétrolier. Mhm. dafa né pour ñu jox la pétrole Sénégal il faut nga remplir ñaari série de critères critères techniques et critères mhm. financiers financiers mhm. ñaari critères yoy ngay remplir il y a des conditions techniques. condition technique yi mooy nit ki il faut mu andi ay référence wax lan mooy jaloorem ci pétrole fan la mus a gëstu pétrole fan la gis pétrole fan la explorer pétrole fan la exploiter pétrole loolu il faut nga andi ko te pétrole petro amuloon amul woon loolu parce que Petro-Tim existé wul woon. bi ñu koy jox loolu la Frank Timis wax ah. waaw non petro amu ko woon parce que Petro-Tim existé wul woon bi ñu koy jox signal contrat dañ ko signal contrat ñu teg ci ñaari fan ñu doog a créer société. maanaam judduwul judduwul woon. ta bu signé ba pare la doog judd. dañ ko signé ba pare mu doog judd te il faut ñu léral ben mbir diggante tim ak Frank Timis tim Eddy Wang la mais Eddy Wang ñun li ñu gëm moy mbubbu la won rek ci Frank Timis ndax Frank Timis bëggoon nañu jox ko ñaari blog yoy muy Saint-Louis ak Kayar. Mhm. mais mënu ko won réclamer parce que mom 2011 joxon nañ ko déjà ñaari blog ci African Petroleum. Mhm. joxon nañ ko fa ñaari blog déjà en 2011 mënu won dellu ci wat ne nañ ko jox yenen ñaari blog ci la dem faxas kële andi ko. Edi Wang moom si boppam nee na Edi Wang xaritam la moom moo ko présenté Alioune Sall nangam nangam dugg na fii donc mu dem jëli euh, Edi Wang ñu créé ñu ñëw def seen i lobbying ba nguuru Ablaye signé leen contrat bi bi ñu leen signé contrat bi. boobu ñan ñoo ci nekkoon acteur Samuel Sarr laa ci dégg. Samuel Sarr Samuel Sarr moo ne woon booba ministre ba. Pierre Atepa waaye après jóge na fa. Euh, kii ñëw waaye Samuel Sarr ak Pierre Atepa moom Frank Timis dafa ne ñoom ñoo ko indi Sénégal ñoo ko andi Sénégal euh, mais Eddie Wang ci boppam bi mu ñëwee ñu signal ko ba pare ba jox ko contrat si ñaari bloc yooyu te bañ koy jox ñaari bloc yooyu wax naa ko ci livre bi am na beneen société boo xam ne mhm. société bu am référence la société bu sérieuse la société boo xam ne am na ak fenen ci aduna fo xamné def na fa forage ba mi ngi exploiter mom mi ngi don waxtaan ak Petrosen mi ngi tuddu tulo Oil mi ngi don waxtaan ak Petrosen depuis ñetti at ba ñu réclamé ko 3 millions de dollars mu fay ko jox ko Petrosen mom dafa xey rek dégg ni jox nañu euh, bloc yi euh, num tuddu edi wang ak kon dans les négociations Tullow Oil mom mo nekkoon en négociation avec Petrosen mo nekkoon négociation avec Petrosen c'est vrai que loi bi neewul su ñuy négocier ak diw rek diw lañ ko war a jox waaye moo ëppoon crédibilité seen société boobu que ki ñu ko mujjee jox muy Eddie ñu jox ko Eddie Wang dem créer société le 17 lañ ko ko jox mu créer société am le 19 société fii bi doom ji bokk. Mhm. société maire bi ñëw après c'est-à-dire ñoom seen société yi. yaay ji <laughs> doom jee jur yaay ji. doom jee jur yaay ji yaay jee jur maam ji noonu lañ ko créer dem créer seen i société maire fële il euh, paradis fiscaux yi. île Vierge xam nga ko noonu ñëw toog mais ñoom xamoon nañ ni kii remplirul condition technique yi moo tax condition financière yi doog a ñëw parce que condition financière yi mooy il faut nga wone ni am nga am nga capacité bi yow mhm. wala am nga société maire bu am doole bu ne sa gannaaw waaye société mère boo xam ne créé guñ ko woon ci jamono jooju munoo munoo ne am na capacité wala nga indi garantie bancaire ban banque moo ne sa gannaaw ak ñaata lay teg sur la table ma fàttali ni ñaari bloc yooyu 96 euh, millions de dollars la ñu jël engagement ni dañ ko fay def ñom muy presque 100 000 euh, euh, non 48 millions de dollars. Nous, muy 96 milliards. ci sont suñu par la ñu avons woon dañ ko ciy avons mm-hmm. wuñu garantie financière bu tax ñuy wax garantie technique amuñu ko spécification technique yi ñu jël mu am ñeneen ñu ko gënoon remplir nga wacc leen fi dem jox te biñ ko ko joxee tuloo ooy boobu dafa def réclamation wax naa ko fii. Uh-huh. daal di le ministre bi fi parce que ci diggante bi Ablaye Wade a signé nañu contrat bi jotul ñoo signé décret bi may toujours auditeur. Le décret bi le pétrole bi contrat bi le pétrole bi. décret bu président décret d'approbation du président. Wow. tant que président signé le décret pétrole amagul nit ki amagul droit ci ci blog. yi donc nguuru ab Ablaye Wad dañu signé contrat bi. jotuñoo signé décret bi préparé na décret bi jotu ko par euh, euh, mottali nguur ga daanu am Macky Sall ñëw bi nguuru Macky Sall ñëwee comme moom dafa jëloon engagement ci campagne bi yéen a ngi déglu bi mu naan su ñëwee contrat minier yi jaarul yëpp da koy dénoncé. Mhm. te wax naa ko ci livre bi am na au moins quatre contrats miniers yu mu yu mu yu mu dénoncé annulé ko cité naa leen sax ci livre bi bi mu ñëwee nit ñi am yaakaar ni. loolu dina ko fi dindi d'autant que contrat rek fi nek décret nekkagu fi ba Oil bind réclamation jox ko ali Ngouille ndjay ne ko lii moo xew ci bloc bi li lañ ma def li lañ ma def bind na ci bané sax dañ ma don dañ ma don laaj ma ger dañ ma don réclamer xaalis waaw au niveau de Petrosen non non au niveau des autorités ministérielles bind nako ak ak Petrosen mu bind ko ci lettre lam lettre ba ñu yebal ko ali Ngouille ndjay ñu mu egg ci présidence de la République bi mu eggé dañoo woo IGE jox ko président dafa sant IGE mu def ko benn enquête ne ko defal enquête wax ma lii lu xew rapport IGE boobu ñuy coow nag lu am la ndax nun yor nañ ci waaw voilà yow mii xam naa ne yor nga ci <laughs> IGE rapport bi lim li ci bind lu leer la ne contrat bi ñu defal Petro-Tim dafa violer code pétrolier baaxut daganut nañ ko dindi waaw waay lan moo tax malgré tout ça président Macky Sall dem signé décret ba foofu la responsabilité am duggee pourquoi mu dem signer décret ba. rapport IGE bi waaw. lan moo tax ñëpp dëppoo ni kii waruñu ko woon jox suñu pétrole matalul charte yi pour jël pétrole bi te baaxul ci Sénégal rapport bu leer nit ñëpp wax ci président Macky Sall malgré tout mu dem signer décret bi. laaj bi muy delloo si mooy lan moo ci bees ci diggante bi ba mu war koo def boo ko seetloo ba seetlu nag loolu laa la bëggoon a laaj boo ko seetloo ba seetlu nag rakk jee ci bees nan la ci rakk ji Alioune Sarr lan moo dugal rakk ji waaw parce que ci diggante boobu ci diggante boobu ñoom Frank Timis tiit nañu. xam nañ ne dañuy remettre comme régime bi daanu na. comme régime bi daanu na mu xam ni fii. nit ñi amoon ci régime ba amatuñ ko. léegi loolu la yaakaaroon parce que ñi mu ñi mu ñi mu ñi mu jiitaloon ñi ko doon ubbil bunt ci régime bële Samuel Sarr la. Mhm. ak son ami Pierre Goudiaby Atépa. Mhm. ci diggante bi régime bu bees ñëw na Samuel Sarr bokkul ci régime boobu même même su dee dafa mel ni léegi bokk na ci. <laughs> Troyes. pas peut-être jël na distance il fallait mu trouver cheval de Troie ci la dem cheval Sall nommé ko administrateur jox ko ay mission ak ay mandat rek a ci dossier bi de signature bi. parce que l'entrée de Aliou Sall ñu signer décret d'approbation. man lool Troyes. gëm ndax Timis lay livre bi. Mhm bi fa ñëwé dafa dem jël doomu Ellen Johnson Sirleaf def ko jiital ko boo demee fële euh, Sierra Leone non la defoon ak frère président ba bo démé Côte d'Ivoire non la def feneen ak feneen. mom loolu Burkina sax d'ailleurs il est poursuivi. Burkina il est poursuivi. il est poursuivi te frères frère Blaise campara, le gis nga Frank Timis du du homme d'affaires c'est un aventurier d'affaires. dégg naa sax ñu naan daf ñoo déposer plainte man depuis huit mois ñu ngi wax plainte ba. gisagu leen gis nañ fi ay avocat yu génn gesticulé wax a wax man de du notifié guñ ma plainte. waaye Frank Timis du homme d'affaires def na ko ci pétrole Grèce bi bind naa ko ci livre bi di fait la spéculation ndax ay nit dem fexe ba ñu jox ko ay bloc foofu mu dem indi ay évaluateur ñu ne pétrole bu bëri lañ fa gis mu gaawantu dem Londres jaay pétrole ba ñu dem ba ci biir ndekk te dara amu fa nit ñi poursuivre ko fu ne moo tax African Petroleum bi mu bi mu nekk mhm. bi mu buggee ko ñu coté ko ci bourse de de Oslo Oslo mhm. en Suède suédois yi dañ ne tant que Franck Timis mi ngi ci bi avec un poste exécutif duñ leen nangul ci lañ African Petroleum génne ko def ko euh, bàyyi ko ci conseil d' administration mais sans responsabilité exécutive parce que noonu lay fonctionner kooku la ñu jël andi ko fii euh, ñu jox leen suñuy bloc fi mu ne nii mi ngay jaay jaay na. Euh, moom ñaata bloc lañ ko jox. Frank Timis uh-huh. soo dajalee yëpp koy ñeenti bloc lañ ko jox ndax mi ngi yor ñaar ci African Petroleum. Uh-huh. ñu ñëwaat. mu jaarale ci Eddy ñu jox ko ñaar yi am gaz fi mu toll nii. Mhm. wëlbatiku na Eddy dem ba ci biir ñu ne jaay nañ ko ko foofu tam di beneen irrégularité parce que code bi li mu wax mooy ku ñu jox suñu bloc pétrolier soo demee ba bëgg koo jaay il faut autorisation du ministre chargé de l'énergie par arrêté moom rek ko mën a autoriser te pour mu autoriser ko il faut mu vérifier est-ce que yow engagement yi nga jëloon. respecté nga ko su dee loolu amul dañu war a nangu yi. te bind naa ko ci livre bi nee naa euh, Petrotim respecté wul woon dara ci ay engagement am pourquoi ñu bàyyi ko mu jaay pourquoi Aly Ngouille Ndiaye autoriser su dee autorisé na ko faute grave la sa responsabilité est engagée ñu mbay ñu bàyyi ko mu dem jaay Frank Timis bi muy jaay nee nañu jaa fukki dërëm doxul seen diggante da koo jox gratuitement. mooy passage ci Petrotim nga wax mooy passage. Euh, Petrotim à Timis waaw nee na Petrotim. bi muy jaay d'abord remplir woon conditions yi donc dañu waroon nangu suñu bloc wala ñu dóor ko ay amende yu tolloog montant yi mu jëloon engagement lool la loi wax dóoruñu ko amende récupéré wuñu bloc yi pourquoi ñu dellu si waat ne suy joxe bloc yi. Euh, euh, euh, droit de préemption Sénégal moom am na droit jaay bloc yi su dee remplir na toutes ces conditions ministre signé arrêté. mais su koy jaay. Mhm. Sénégal am na lu ñuy wax droit de préemption mooy balaa keneen di jël bloc yi Sénégal moo ko war a jël. moo war a jëkk jël. ñoom soo leen waxee dañ la naan waaw Sénégal amul xaalis pour mun a jël droit de préemption loo xam ne dañ koy jaay mais ñoom ñëpp ñoo taxaw ne diggante Timis Petrotim ak Timis njaay mi xaalis amu ci. Ah, timis kon li nga mën a jox Timis man. man nee na njaay njaay mi xam nga man dama leen ne xaalis am na ci moo tax dafa waroon fay lempo. parce que ñaata ñaata ñaata nga eh, sa calcul non bàyyil moi dire a yeggal li ñu ñëw ci l'impôt gi dama leen ne su dee ñaar moo mën a am su dee dañu transmettre rek obligation engagement d'investir parce que yow soo jëlee bloc da ngay am engagement d'investir Moi, mhm. 96 milliards yooyu ma wax ak les garanties su dee loolu rek la transférer est venu ñëw man reprendre les engagements d'investir je ci investir C'est loolu projection la boobu mooy première possibilité mun na yem foofu. waaye njaay nag balaa muy balaa ñu muy tudd njaay mooy livre bi cent laa ko jëndee su ma koy jaay dinaa ko jaay cent vingt ndax ma am ci dara mhm. léegi nag loolu ci tegu la ñu ne euh, fiscalité war na ci am mais ñoom dañu ne balaa may ñu fiscalité bi ñoom dañu ne njaay mi dara tegu ci teguwu ci engagement yi rek la jël man leen waa yaa xëy yow code bi nee na la bu jaay di am balaa keneen di jënd yow Sénégal yow yow mi moom bloqué yaa am priorité nga ñëw ne ma njaay mi gratuitement la. ma taxaw jël. doo fukki dërëmu Sénégal naru cee dugg li tax Sénégal jëlu ko li tax Sénégal récupéré wul suñu bloc bu boobaa amoon nañu suñu ñaari bloc yu baax mun a waxaale ku ñu bëgg a waxaaleel am ci lu rëy rëy pour Sénégal loolu wane na rek contradiction yi am seen i seen i discours parce que li tax ñu dàq ni euh, teguñu ci xaalis impôt gi lañ doon daw. impôt bi impôt fan nga teg sa calcul boobu. waa impôt gi ñun li ñu wax dafa leer dañ ne. Euh, njaay su amé ndjay su amé ci lo xamné ay droit nga jaay loolu dafa war a fay lémpo exonération yi ñu joxé moy euh tegg gi ñu teggi lémpo gi ci opération pétrolière la code bi dafa né opération pétrolière yi teggal nañ leen impôt opération pétrolière nak ni ko code bi définiré moy lepp li jëm ci recherche bi ci forage bi ci ci ci ci ci ci lu jëm ci liggéey bi mais mais jaayante ay titres ak ait ay droit lors du opération pétrolière gis nga raffinage xam nga raffinage c'est opérationnel mhm. mais raffinage code bi dafa beaucoup de ci opération pétrolière raffinage waxuma laa nag am naa samay titre bëgg naa la ko jaay yow Pape Alé kooku munoo Moussa nga tous les experts fiscaux du du Sénégal jëm leen jël ay experts indépendants autrement dit nous argument bu ñu exploration la moo tax defuñu euh, ci fiscalité nous ko téye comme opération parce que Frank Timis dafa am ay titres am dem jaay ko Timis xam nga ñoom dañuy jaawatle ñaar phase exploration opération exploration euh, exploration yi dañ ko exonéré mais entreprise bi mun na def yeneen opération yoo xam ne bokkul opération euh, pétrolière ci ci phase exploration euh, masalan entreprise bi mun na mun na jënd ay kër yoo xam ne dafay loger ay ay ay ay nitam ak yu demee noonu yooyu code bi dafa la naan dafa war a fay impôt dafa war a fay impôt sur sur sur sur nu mu tudd foncier bâti ak ñoom seen da ko war a fay yooyu bokkul ak opération pétrolière en tant que tel ñu ne la ci jamono jooju entreprise bi su demee ba ne léegi samay titre man dama koy jaay kooku amul benn rapport du gas du pétrole du gis pétrole amul benn rapport ak opération pétrolière tu vas dans toutes les législations du monde am naa benn étude boo xam ne étude comparée la ci les législations africaines plus-value boobu ñuy dégager presque dans tous les pays africains waxuma la nag pays yi gën a moderne dafa war a fay l'impôt mun nga laaj ku la neex maintenant li ñu bëggoon dàq xam nga ñaar yooyu boo ci dàq rek dëggal ba ca des mm-hmm. benn dàq nga ni amul plus-value. kon kon kon li tax defoo préemption mooy mënoon nañu récupérer suñuy bloc te duñu fay fukki dërëm. Mhm. d'accord nga ni am na plus-value. Mhm. impôt gi sax na li tax waa impôt yi domaine ñu suñu l'impôt suñuy milliards. calcul bi ñu defoon nag bi nga posé sànq bi cool ne kët ne jon ñun dañoo jël montant yi ñu yu ñu joxe ñoom ne lii moo dox diggante kële ak kële ma ne lii su dee moo dox seen diggante war na fay minimum nangam ci impôt. léegi suñu 90 milliards 90 milliards léegi nag ñoom suñu demoon ba andil ñu le détail des contrats nañu contrat bi li mo ci reprise des engagements d'investir hmm. li mo ci plus-value li mo ci trick nous nañu calculer ñu ma ma ma ci ben ben firnde rek li wane ni déjà ñom li ñuy wax toujours contradiction da ci am Boun Abdallah Dionne dafa ñëw né fukki dërëm teguñu ko ci Frank Timis ñëw fi def interview am né teg nañ ci 10 millions de dollars yo xamné ne man dañ ma koo dañ ma koo jox dama koo jox euh, Petrotim euh, euh, dont dont dont huit pour cent d' action la ca des deux deux virgule cinq millions xaw ma de dollars ci xaalis xam nga loolu déjà contradiction am na mm, te balaa ñuy mën man nag waxu Frank Timis moom nga xam ne moo jëndante moom laay gën a dëggal ko waxu bun jon mhm. léegi ma ne balaa mbir mi di gën a neex nag dañu publier contrat yi lu ñuy làqar làqaral dañu war a publier lépp ba ci njaay mi suñu jaayee lan la ñu jaay ak ñaata lañ ko jaayee parce que si nous sommes Sénégalais, sénégalais avons le droit de savoir la constitution dafa sénégalais xam la constitution c'est le peuple sénégalais qui a la souveraineté sur les ressources naturelles article 25.2. les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais Macky Sall Aliou Sall Ousmane Sonko Pape 14 millions de sénégalais sont ko ne ci sañ suñu alal gi te ci pétrole bi gi ngay faral di wax hmm. euh, li xew ci même même acte gi la ñun am droit savoir ñom ñu teju presse euh, euh, négociation avec Total secret dans les négociations avec Total mais li am Total secret ci suñu alal fi loo leen wax ñu ne la waaw c'est un domaine technique n'importe ki waru cee wax lu ñëpp moom nga ne nga ne domaine technique n'importe qui waru cee wax te ñoom ñu am sañ-sañu wax lu ne Macky Sall day wax ci droit fan la jàngee droit day wax ci leneen ak leneen dama ne nañu ñëw ñu wax sénégalais yi pétrole bi ak gaz bi ak zircon bi parce que Sénégal am na lu lu mu mën a teddee ba faw waaye mm. suñ ko caaxaanee damay dégg yenn sénégalais naan waa pétrole génnagul sax ñu ne fi di wax dañuy xaar ba jaan gi romb ñu topp ci kii bi di dóor. bu fekk pétrole bi gën tey la ñuy régler problème bi parce que pétrole bi suñ ko commencé exploiter en 2012 yi ñu signé tey. moom la ñuy mooy déterminer base bu ñu koy exploiter te li ma la wax léegi ci bi ñu ci njëlbeen bi contrat yi baaxul ci ñun contrat yi soo jëlee total total moo gënoon a néew offre bu mu def. moo gën a néew mooy kaawu Thierno Alassane waaw moo gënoon a néew offre bu mu def. <laughs> Hmm. par par par rapport ak li. Cosmos euh, proposé Cosmos ak ak ak ak BP Nous xam nañ ni total boole nañ ko ci major yi BP du moromam. Mhm. Cosmos mi ngi fii déjà dem def jeune venture ak BP def une offre boo xam techniquement et financièrement li nous li ñu proposé moo gën a baax total proposé mais parce que Macky Sall dem na France. jël engagement ak français yi ne un total de ko dugal ci pétrole Sénégal may wax ñu diversification ban diversification ñun suñu naroon am benn benn benn co-contractant rek te mu mu mu mu gën ci Sénégal ñun doy nañu mhm. donc après da ngay gis gis nga bi may ñëw dama kii téere bi ah. euh, euh, euh, dama ko àndaale dama la ko bëggoon àbb parce que de quoi totalitarianisme c'est un excellent livre waaw mu jëlee France mhm. parce que suñu suñu leader politique yi da nga naan lan moo leen dal mais soo liiree ñu ne la de quoi Total est-elle la somme lan mooy Total mhm. waa ji comploter coloniser collaborer corrompre conquérir délocaliser pressurer polluer vassaliser nier asservir régir loolu mooy Total est devenu on dit même qu'il est devenu un état souverain maintenant léegi nag ban moo ci am ça c'est une yi ndax dañ leen comploter wala dañ leen coloniser wala dañ leen corrompre wala dañ leen euh, vassaliser wala lan moi ci xew ba tax nga am l'or, xam ne lii gën ci Sénégal kii li mu proposé soo jëlee techniquement pétrole ni ñuy déterminer paaru ku nekk état bi ak ñële bu ñu la production de référence nañ ko tuddee mooy ñaata bari la ñuy génne par par jour ci ci ci ci teen yi bu ñu paree dañ naan ki nga xam ne moo dugal xaalisam entreprise bi droit li mu jotoon investir mu commencé ko déduire mu wàññi ko loolu la ñuy wax le cost oil mm-hmm. da koy dindi Sénégal ñu ngi ko def diggante soixante et soixante te loolu baaxul. Mhm. mondialement c' est entre trente et soixante pour cent muy premier élément bu war a justifier suñu code bi dañ ko war a réformer balaa ñuy jox keneen teen bu ñu génnee loolu ba noppi plafonné ko à soixante quinze pour cent ñu ne lan moo ci des loolu la ñuy wax le profit oil loolu la ñuy séddalee diggante Sénégal ak ñoom mais loolu benn barème la barème bi dañ naan diggante zéro euh, de zéro baril à trente mille baril Sénégal am na trente cinq pour cent ñële. 65 de 30 de 60 euh, de 30 000 euh, barils à 60 000 barils Sénégal a 42 pour a 32% non non non et plus la production est importante nous dem ba barème bi renversé au Sénégal en plus que les am moins. Hum. mais gis nga barème boobu li ma ci am ci euh, investigation total moo gënoon bon barème pour Sénégal barème bi mu andi proposé ko moo le barème par rapport à ñeneen nous ñu proposé lan moo ñoom Macky Sall dem signé euh, dem signé ak Total te bàyyi ñeneen ñi. au détriment du peuple sénégalais. débat yooyu la ñuy posé te dañoo bëgg ñoom nañu génne lépp publier ko ba pare ñëw toog ak nit ñi wax ak ñoom parce que lu ci nit defit day gàtt day gudd di nga ko layoog peuple sénégalais bi. alors euh, dégg naa tamit si sa gis nga ne li li la jaaxal mooy homme d'affaires yi liggéey ak état Sénégal ñoom ñëpp li tendee ka sol ba tudd nga ci Ovily Tenders Frank Timis moom wax nga ci ba pare Ovily Tenders euh, moom dafa jot suñu blog yi moom it. am na si xam nga Ovidie Tendès 2015 dañ ko signé jox ko Saloum onshore ak Casamance onshore. Mhm. ñaari bloc yooyu newul ci géej gi ci biir ci ci ci ci jéeri ji la ne. lii wane rek ni amuñu assemblée nationale moom premier ministre njëkk naa jaar assemblée nationale def déclaration. moom mi ci kaso bi en ce moment. mu ngi ci kaso bi. ngir Roumanie en prison. Baba Aïdara soulevé woon na question boobu. Mhm. ne. premier ministre dem na assemblée nationale def déclaration am ne ñaari bloc war nañ koo joxe mais dina dellu si assemblée nationale suñ koy joxe wax ak ñoom mosu koo def. wax ñan kan lañ ko jox. kan lañ ko jox ak ci yan anam mosu koo def dañoo xëy rek ñoom ñu dem signé xaatim jox ko Ovidi Tender Ovidi Tender euh, yow ci say chronique wala ci sa site wax nga ni ak ñu bëri wax nañ ko ni jamono jooju ñu ngi ko jàpp pour corruption. dëkkam fi mu dëkk corruption corruption et blanchiment d'argent fi mu dëkk Roumanie 12 ans et 8 mois de prison lañ ko fa. tëj tëj ngir corruption. kooku noo ko mënee jox suñuy bloc ci jamono joo xam ne euh, borom doole àdduna bi yëpp ñu ngi daw si ne dañoo bëgg blog. yooyu nga dem jox ko suñu bloc. nga jox ko un prisonnier. nga jox ko un prisonnier <laughs> te li ci gën neex prisonnier bi jaay na bloc ya. nga ne. jaay na ko 2016 bi. 2015 dañ ko ko jox 2016 mu jaay ko. kan la ko jaay. mu ngi ko jaay benn société bu nekk Émirats arabes bu tudd euh, euh, fàtte naa tur bi yor naa yor naa sax contrat bi man jaay na ko ci anam goo xam ne laaj na ndax ki autorité yéeg nañ ko wala yéeguñu ko parce que moom dafa muus xam nga dafa am les droits am euh, la société elle-même mun nga jaay droit yi te jaayoo sa société bu boobaa da nga war a dem wuti autorisation mais loi dafa ne même su dee même su des sociétés bi ngay jaay mooy les actions de la société. Mhm. da nga war société bi su mom moom moo porté le bloc nga bëgg jaay action yi da nga wara dem demander autorisation xam mom lu mu def da fa jël société bi société baa ngi tudd Casamance Oil and Gaz société bi la jël jaay ko 10 millions de francs lañu déclarer ci jaay mi 10 millions la déclarer xam nga lolu moy li ñuy déclaré officiellement waye ñepp xam nañ ni ay bloc pétrolier kenn du ko jaay. 10 millions de francs acte notarié bi maa ngi ko yor jaay nako telolo loolu suñu autorité yaa ngi fi toog di xoole donc yooyu yu garaaw a garaaw la dafa garaaw Ovidiu Tendeng un prisonnier bu ñu jox suñu bloc pétrole mu jaay ko jaay na ko génn na ci ba jaay na société ba xam nga société soko koy jaay da koy jaay avec ses actifs et ses passifs mhm. donc man suma ma la jaayee sama société société bi Amon na ci benn oto amoon naa ci benn ordinateur ak naam waaye amoon naa ci bor ak léegi lii lépp dama la koy jaay yaay débrouillé donc suma la jaayee 100 des actions de la société blog yi nga xamné ci turu société lañ ko joxe woon yaa moom blogué léegi te société bimu ko jaay kenn xamuko sax ci pétrole dégg naa sax société financière la du société pétrolière loolu moy li xew ci pétrole Sénégal ñu ko spéculation la def ci pétrole Sénégal on a amené des aventuriers ño xamné ne Frank Timis ñaatoon lañ ko condamné fu ne ci aduna ba ci ay trafic de drogue ak lu né japp nañ ko ci mhm. cocaïne ak lu né nga delloo si ko fi jox ko ci ci ni mi défé affaire barki démb assemblée nationale Burkina Faso mhm. dañu def sen commission d'enquête parlementaire xam nga loolu ute na ak suñu tàccukat yi mm-hmm. dem def seen seen commission d'enquête parlementaire ne miin tombaw fu ñu wax tombaw miin yi ñu joxoon Frank Timis waruñu ko woon jox violation du code minier li mu waroon jëloon engagement da koy def defu ko fa daal di bind rapport ne nañ ko poursuivre en justice nañu nangu miin yi ba pare complice yi mu amoon foofu y compris le frère du président Compaoré nañ leen poursuivre en justice loolu mooy rôle assemblée nationale mm-hmm. ñu mel yooyu nga jël leen andi leen jox len suñu pétrole ñu yóbbu ko di jaay euh, euh pétrotim néna la société écran la won jaay na Timis Timis wëlbatiku. jaay Cosmos. jaay Cosmos. ñu dédé déedéet way mu joxat ko BP mu joxat BP légui mi ngi bëgg jaay li des BP motax collectif bi ñu taxawal ñun parce que li bëgg Sénégalais yi xam moy li la ñun peuple sénégalais ñoko wara duñu nangu ñi ñu jox pétrole bi sénégalais ko gëna soxla. Sénégalais ñoo gën a soxla suñu pétrole ñoo ko gën a soxla Total ñoo ko gën a soxla BP bañuñu ku ñëw liggéey andi say moyens waaye ñu respecter intérêt Sénégal. Mhm. moo tax collectif bi ñu taxawal tuddee ko collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers. Mhm. te Alioune Gueye mi nekk États-Unis diriger ko ñu déposé woon ay plainte parce que déposé nañu off nag gis nañ amu njariñ njëriñ bi Nafi Ngom Keïta defee liggéey bi. commencé des enquêtes qui l'ont ko jëlee foofu. est-ce que le dossier boobu tëj ñu ko OFNAC. tëj nañ ko parce que waxatuñ ci <laughs> yow soo soo amee possibilité wax ak borom borom ki jiite OFNAC kenn waxatu ci dossier bi ñu ne comme am nañu yeneen possibilité yoo xam ne tey soo demee Amérique dans le cadre de cette loi bi ñuy tuddee euh, le FCPA. Mm-hmm. ñoom mel may nañu yu mel ni su amee nga ñëw déposer foofu plainte ñu dem déposer département de la justice dem déposer secrétariat au commerce États-Unis ñooñu ubbi nañ dossier accusé nañu réception. ñi ngi enquête ñoom Alioune Gueye nga koy suivre foofu ñun ñu ngi koy suivre fii ndax man dem naa euh, ñaari yoon ambassade États-Unis ñu toog mu waxtaan ak ñoom procureur ngi toog euh, FBI ngi toog waxtaan nañu. ah bon ñu dem ñoom ils sont réceptifs. ils sont réceptifs. ñu dem euh, Grande-Bretagne am na lu ñuy wax SEO SFO Serious Serious Fraud Office même même liggéey lay def dans le cadre li ñuy wax Bribery Act déposé nañu foofu ñoom it tontu nañu accusé nañu reception ba boole ñoog. service bu Autriche parce que Timis il est. Euh, mhm. euh, euh, non Australie du moins. ñu dem déposer également. donc amna xex parce que. mais planète Mars. non <laughs> planète Mars ki ko tudd fa xam dafa dem ñun <laughs> suñu pétrole Sénégal fii la ne ci àdduna sur la planète Terre. Ah fépp fu ko mën parce que Frank Timis il a euh, il a euh, euh, nu mu tudd nu mu tudd société am société britannique la île britannique la loi américaine dafa ne mais tulli nga ko nga ne li la société qui ci paradis fiscal la nekk Defna tableau bi. wala ni ci livre bi xam nga loolu yëpp pour préparer fraude fiscale d'envergure là. gis nga Sénégal pareeguñu pour gérer pétrole bi moo wala waruñu woon gaawantu di signer tey pétrole bi li ci ëpp wala lépp sax à part ou gazu Gadiaga bi ma nga fële ci océan bi kenn ci ñun mënu la wax fan la né Petrosen hmm. lu ñu wara wax la Petrosen pourquoi parce que Petrosen moy société bi géré suñu pétrole c'est hmm. euh, état Sénégal 10 action yi mu am ci pétrole bi Petrosen mo koy gérer absolument part bi mu am ci production bi suñu commencé produire Petrosen mo koy enlever mo koy commercialiser té kenn mënu wax lan moy Petrosen site internet sax amuñu ko xaliss bi ñi encaissé parce que kuy ñëw tey ñu koy jox pétrole am na xaalis booy joxe déjà lu ñuy wax bonus d'entrée da koy joxe lu ñuy wax euh, fonds social da nga koy joxe li ñuy wax logiciel Petrosen dañ la koy réclamer nga joxe ko euh, ainsi de suite xaalis bu bëri la mais kenn xamul fan la Petrosen di dugal xaalis bi parce que du dem ci budget état bi kenn mënul wax fan la xaalis bi di dem Petrosen lu toll noonu. du dem ci budget état bi. non ñoom ñoo koy. gérer c'est géré exclusivement euh, ñoom.

donc ñun on n'est pas encore techniquement outillé Sénégal suñu administration technique du impôt du douane amul kenn ko am les outils pour ne tey pare pour gérer affaire alors pour ñu yàkkamti pour ñu jeexal euh, ci kii bi ñu ñëw si responsabilité parce que gis naa nga sérieux ku nekk luy sa responsabilité ci li nga xam da nga ko comme scandale président Macky Sall lu ci lu ci yoonam moom. warul woon signer décret ba. décret ban. décret bi jox Petro Tim. décret d'approbation. approbation bi rapport UG e waxoon na ko bu mu ko signé waru ko teyamul ci bobu rek ndax même ba ci dossier avis du tender bi di xam nga ni kooku waruñu ko woon jox ba koy ba koy signé suñu décret donc mom damay fàttali ni président Macky Sall bi koy fal dafa prêter serment formule bi mu wax cité na ko fi il a juré mhm. d'appliquer et de faire appliquer la constitution et les lois de la république ci dossier bi appliquer wul la loi appliquer wul la loi lolu faute bu graw la su ne yenn démocratie tay nous prévoir sur ñu dispositif constitutionnel la la possibilité de destituer le président de la république c'est mhm. la responsabilité politique du président de la république quand il peuple bi moo réclamer sa démission parce que c'est très grave Le toll ni suñu pétrole avec li ci nekk ak enjeu mhm. ni remplir ñu charte yi signer la responsabilité du responsabilité président Macky Sall République. kook warul woon sax def loolu bi mu ni parce que la loi est terre, tere moral morale ko moo tax soo lu ni FCPA de dafa sévère ci les américains société américaine la société étrangère bu montez parce que nous, pour nous déclarer cette compétence même sous des sociétés bi américaine les transactions sont libellées en dollars la justice américaine est compétente parce que c'est une devise américaine Nous, uh-huh. dañu ne société étrangère warul dem di traiter affaires, avec des proches du président. d'ailleurs les gens famille... disent conseil d'administration pour qui il ci euh, c'était une exigence de cosmos parce que cette loi dafa société américaine ou étrangère, warul dem traiter avec la famille du président les proches du président wala ak ñoo mandat électif ou nominatif Moi, ministre, moi, haut fonctionnaire, moi, les maires et les députés ils ont des mandats électifs et qui. Moi, tax Aliou Sall man dootuma fonctionnaire ce qu'il ne sait pas parce que quel amul preuve ni d'autres fonctionnaire Moi, je suis démissionnaire mais il est maire il a un mandat électif ba parler du frère au président ñu dugal ko ci pétrole ci loo que président moo signer. a signé. mais lan est ci responsabilité un conflit d'intérêt wala. non mais il may wax non, c'est-à-dire xam en matière de droit dafa am lu la corruption et les délits voisins corruption du lu lu nit à la légère parce que il faut nga mun koo prouver matérialiser moo livre bi de fi corruption mhm. mais les délits voisins laa wax trafic d'influence conflit d'intérêt yu mel noonu moom laa gën a traité ci livre bi parce que loolu mun nañ ko constater ni lii proximité diw ak diw mënul tax suñu xel dal ci lan moo war tax mu signé lu mu war woon signé ak les cumuls de fonctions. koo xam ne yaa am fonction publique mandat public boole kook des cumuls de fonctions, yoo xam ne dafa laaj intervention état lu ñuy signé gi demee non ah. lolu mom traité naa largement fi te foofu moy responsabilité Alioune Sall Aly Ngouille Ndiaye moom mom mom mom mom moom moom moy lépp mooy lépp. ndax c'est-à-dire. moy lépp parce que décret de présentation bi ñuy yóbbu ci président de la république xam nga président de la république décret bi dafa am euh, note introductive buy présenter affaire bi. mom mm-hmm. ñaare ci lolu lay sukkandiku pour signer.

Arrêtez ngi fi décret ngi code ngi droit c'est pas de la géologie c'est du droit code pétrolier le code général des impôts c'est du droit mhm. xam nga géologie moy lan naka lañuy naka la bi ci ak droit bi partie droit bi nga dem ingénieur ci dara droit bi man la xam ak analyser ak ban quantité ak pétrole bi ban qualité la responsabilité ministre de l'économie et des finances waa ministre des finances moom mooy taxawaay bi mu am ci wàllu lempo gi rek te dama fàtte li ma doon wax délit voisin yi am na beneen beneen délit bu ñu tuddee le délit de concussion concussion mooy su dee yow da nga waroon appliquer loi appliquer woo ko wala nga appliquer loi noo ko warut a appliquer ba tax nit am ci bénéfice bu mu waroon am yow sa responsabilité s'est engagée mooy tey direction générale des impôts et des domaines dañoo mhm. engagé seen responsabilité parce que dañoo war a réclamer impôt gi mooy lettre ouverte ma bindoon il y a deux ans te mu andi coow sama dàq sax fa la jaar yaa sa recours bi fan la mujjee sax. xaw ma sax toppatoo ma ko recours bi saa ma rek noonu la man defe naa pare naag administration waaye pour le principe la ñu déposé recours bi mais toppatoo ma ko sax defe naa syndicat impôt moo koy gën a suivre. Mhm. parce que man maa ngi ci yeneen léegi mais. bi ma ko bindee dama ko bind lettre ouverte au DG des impôts ne ko réclamer à Liou Sall à Petrotim l'impôt des Sénégalais ñun agents des impôts voilà nous sommes les. naa ci booy ñëw commencé da ngay prêter serment tu prêtes serment de servir le peuple sénégalais en appliquant la loi le code général des impôts ak la loi bu ko wër donc soo ñëwee loi bi de côté parce que jox nañ la instruction avons la boule def ba tax nit waron fay lu bëri ci impôt fay ko té bobu jamono boutiquier bi nek fi su fayul cinquante mille francs ngi koy laaj ngeen tëj boutique ab ab ndoxa dem jóge fële ñu jox ko suñu pétrole mu dem jaay ko am ci ay milliards ne mes fay war a fay impôt fayoo ko yow sa responsabilité c'est engagé c'est un délit de concussion loolu loolu mooy seen responsabilité le fekk que defuñu ko ba pare taxaw ci télé bi di ko layal dem assemblée nationale di ko layal loolu mooy seen responsabilité ñoom ci mbir mi te loolu ñun bettuñu parce que yàgg nañu impo loolu yàgg na fi impôt moom wax dëgg yàlla ku amul gannaaw rek ñaare yaa koy fay waaye ñi war a fay impôt dëgg am doole ci réew mi borom gros capital yi fune ne saa amna ne am na fu ñu jaarale xam nga yaa un an et demi syndicat impôt dénoncé woon na fi les mm. remises gracieuses ay multinationales yo xam ne dañoo def fraude fiscale fraude fiscale waron fay fayuñu te xam ko c'est-à-dire yi gën a yo yoo délit pénal la pénal code général dafa ne li délit pénal la dañu war a c'est passible d'emprisonnement mooy collecter TVA par exemple man ma ñëw di jënd ci yow mm-hmm. nga né ma 100 la lay jaay waye nak état bi état bi amna ci 18 muy te 18 pour cent muy cent 118 TVA. Mhm. nga collecté TVA ba pare waruñ ko reversé toog ci xaalisu jàmbur nga toog ci ñu jàppale ci loolu ñu xëy ne remise gracieuse annulé nañ ko loolu yu garaaw garaaw la te gis nga yooyu yëpp ah su nguur gi soppi koo de te ñun ñu yàlla boole ñu si ñu koy ŋànk mhm. yooyu yëpp dina fi leer te du du mel ni caaxaan yi ñu doon def ay trac des biens mal acquis moo tax liñ leen di wax ku nekk na xool li muy def kenn joxu leen kenn mayu leen dañ leen dénk lii alalu réew mi la

train express Bobu nañ ci wax après parce que de ñom 500 et quelques milliards lañu lañu lañu déclarer. la ñu mais y aura des avenants. non wax ma la avenants yi Bo dajalé contrat yi ñu signé yëpp fi mu toll nii te déguerpissement yi duggagul mat na 1000 milliards ci benn daggitu train parce que bëgg nga dem neex neex tubaab bi rek ñu ñew fi démb maa ngi dégg seen ministre défense xaw ma ñëw fii vraiment la croissance xaw ma lan ak lan au Sénégal ñun soxlawuñu avis tubaab bi li ñu nekk fi xam nañ ko. Mhm. c'est vrai que bon nous Macron <laughs> c'est vrai que un Français ne peut pas mieux connaître que nous euh, euh, la situation que nous vivons ici au Sénégal voilà. Euh, Ousmane Sonko livre pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation c'est accepté par la direction surveillance territoriale Non hein. non. Mhm. bu ministère de euh, l' intérieur léegi livre bi sénégalais yi nga xam ne bëggoon mais yënga ne craqué nañ ko gaa yi nga koy jàllale ci moom laa doon censure amul sens. amul sens amul sens parce que man man démb rek am na kenn ku ma envoyé tout le livre en version PDF. man mii ko bind toog naa ñu envoyé ma ko ci <laughs> WhatsApp. WhatsApp xam nga ko andi man entrepreneur éditeur bi. parce que mhm. moom moo ko def vente en ligne.

ba léegi am côté positif parce que ñun defuñu ko pour alal biñ koy bind defuñu ko pour am ci alal je crois pas que ci livre ngay amé <laughs> yenn alal yi à moins que mu doon best-seller international dañ ko defoon surtout pour informer pour que sénégalais yi mu ñor ñu mën ci jot même ñi jangul tuba ba sori sax peut-être amna nu ñu nu ñuy génnee ay ay parti livre bi nit ñi di ko relayer ci olof ci débat comme ni ñu mm. défé ni peut-être dina leen gën a ci lu bëree bëri et puis andi ben prise de conscience sénégalais bu nek sentir concerné ñu xamni dañoo war a weesu fal nit rek dem toog naan yor nañ suñu carte ñu ngi xaar beneen mandat parce que diggante bi nga koy fal ak beneen mandat yàqu bi mun na sori ba nga xam ne boo fi faloon yonent sax pour mu defaraat fi dina métti donc nañuy xool li xew bu nit di jàdd ñëpp taxaw ne ko lii duñ ko nangu Mhm. c'est li l'émergence d'une conscience citoyenne forte pétrole et gaz au Sénégal une spoliation merci beaucoup Ousmane Sonko on va faire une petite pause pour nous deuxième partie bi aborder la situation à l'université de Dakar parce que gars est cette année, rek mais professeur yaa grève vendredi ci mujj décrété 48 heures Malik Fall va venir ici étudiants yi ñu ngi dund ak angoisse inter étudiants yi euh, interpellé nañ ma ci Fall secrétaire général du syndicat autonome des enseignants Nous avons toog momit bu toogee indi ay leeral wax lan mo indi sen problème ak état bi lan moy sen revendication est-ce que fim nek nekk ci jeexitalu at bi buñu bayé est-ce que mbir yi du dem ba jéggi dayo euh, Mali Fall moy sama deuxième invité euh, ci euh, samedi matin. on va faire une petite pause pour recevoir monsieur malik Fall secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du supérieur.

it. خاتم نبينا إمام المرسلين موي سيد الورى سيد الأولين سيدنا محمد موي سيد البشر موي جفنوا فما جفنوا دا جفنوا جفنوا يب عند بولا جفنوا تي سيدنا محمد سرين بامبانان ما خادم رسول الله لمجر موم لكو تدي بونكي خمنا جرم شيخنا سيخ سد Muhammad kii kay xam na cëram maam li maamu laay borom aji boda daay ham xam na cëram ala di Malik Malik kenn mënu koo Malik borom miim ya moo ñu tojol yax bu rëy bi bayoon neen bi mu juddoo ni mu juddoo kii kay xam na cëram ay wale ñu ñaan ci barke Seydina Muhammad ak saabaam yee nangu leen ñaan fekku abadan may ñu jàmm mu ànd ak bu sax amiin ci barke Seydina Muhammad voilà euh, suñu sango suñu euh, deuxième invité hein, Ousmane Sonko bi présente présenter livre pétrole et gaz au Sénégal Malik Fall secrétaire général euh, du syndicat autonome des enseignants du supérieur Malik, université de yi il mi ngi ci crise parce qu'il y a un mouvement de grève bu mettez mettez. lan moo waral mouvement de grève d'abord. voilà jërëjëf pas parler.

dilen leen jagleen nuyoo te ci sen liguey voilà bu telu soit nag ci sa question effectivement jamono yi enseignement supérieur effectivement université yi xaw na yëngatu du ma ne sax xaw na dama naan yëngatu na liko li ko yëngal euh, mooy ñàkk sàmmante kàddu ak ñak respecter également ce euh, euh, wax mais également ñak déglu ay nit ñoo xam ne dañoo nekk ci biir système bi waxtaan ak yow di la alerter di la wax ne la kat ah fii ñu jëm baaxut te bu ñu fa eggee gëwma ni dana baax ñu commencé ko depuis daana ko lu tollook at ci la ci léegi di alerte gouvernement bi di leen wax ne leen ah am na loo xamee dafa doxoon suñu diggante ak yéen muy waxtaan te ki ko jiite am nañu yaakaar ni autorité la ndax mooy jëwriñ yëpp moo leen jiite. premier ministre muy premier moo jiite waxtaan boobu indi ci yeneen jëwriñ yoo xam ne dañoo ñëw bokk ci waxtaan boobu yemuñu ci loolu assemblée nationale ñëw am ku leen teewal muy Moustapha Diakhaté di président groupement groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ñooñu bu ñu ñëwee di ay autorité toog ak ay autorité ngeen séq waxtaan am lu ngeen tënk am ay échéance yoo xam ne da ngeen ko teg maanaam ay ay ay euh, date yoo xam ne dañuy fii kat war nañ fa bu ñu fa eggee lii war nañ ko mën a doxal bu fekkee ne am na rëq-rëq kon war ñu mën a toogaat suñu biir xoolantewaat suñu biir pour xam mais lan moo waral lool ndax ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo seq mbir yi ndax daf ci am kenn koo xamee ne dafa demut dafa def lu mu waroon def wala la waxoon daf ko sàmmat wala déet. tey jii dama bëgg Malick mu leer ci boppu téléspectateur yi ñuy seetaan. Mhm. ak sénégalais yi ndax fépp la ñuy seetaanee ci àddina bi. tout parce que bu ñuy gis grève rek dañuy wax ne enseignants dañuy grève dañuy grève rek ci grève lañ dëkk lan ngeen tënkoon ak premier ministre ci teewaayu Moustapha Diakhaté ci seeni revendication te nguur gi ngeen jàpp ne respecté wu ko. xam nga pap dañuy dellu siwaat dañuy dellu siwaat gannaaw tuuti ndax euh, pour wax rek ni ni enseignant du supérieur ak nekk ci kuréel gu ñu tuddee syndicat autonome de l'enseignement supérieur amee euh, respect bu ñu jox système bi gis nga 2011 la mën naa wax ni daana ko xeex bi mu ngi commencé 2010 boobu waaw booba jamono jooju Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade moo nekkoon ci nguur gi ministre bu ñuy tuddee Amadou Tidiane Ba nek ministre de l' enseignement supérieur tey jii kii fi nekk tey jëwriñ ministre enseignement supérieur bobu recteur la ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu commencé ben xex ñu am ay gëstu yo xamné dañ ko defoon ci Sénégal amna ci lén lo xamné ni ci ci ci protocole yi amna ci yo xamné ni daf ñu soxalon ñun manam ci ñun la jëm ci woon manam lu jëm ci wàllu dëkkuwaay lu jëm ci walu santé yoy ci ñun la woon hum. mais li ci ëppoon bo xolé nous avons le système d'enseignement supérieur Nous avons commencé ñu ni avons fait des études ni d'abord ndax bac passeport pour ñeu université. bac kese kese. ñu def ci ay invité ci gouvernement jamono jooju ñu ñeu fekk ñu def waxtaan ñu def ay ni ah légui gis nañu sun université Sénégal population bi

ak amélioration donc de la qualité de l'enseignement mu bari ay programme yoo xam dañu ko tegoon ñu ni ñoom dañoo war recruter lu mat 2000 enseignants war nañu tabax lu toll nii ci ay classes ainsi de suite mais loolu yëpp boo ko defee amélioration yoo xam ne ni dafa war jëm ci diggante njàng mu suufe mi njàng mu diggu doomi uh-huh. mais ñooñu bu ñu ñëwee ba exit terminal dañuy am seen bac mais ñooñu bu ñu amee seen bac léegi fan lañu jëm ñoo jëm ci université wala ñoo ngi dem ci école yi nga école de formation yi leen capturer mhm. donc ñu gis ni nguur gi peut-être li jëm ci wàllu amélioration peut-être enseignement primaire secondaire yooyu taxaw nañ mais taxawuñu woon ci mbir lu jëm ci enseignement supérieur donc mu am benn déséquilibre bu mag boo xam ne dafa dox ci diggante ñaari xeetu Nous, ñun ñu def suñu ay gëstu wax ni ah, population Sénégal la population jeune bi mu di progresser gisee ko également niveau baccalauréat le résultat quel que soit par ailleurs même si le résultat baccalauréat yi baxul parce que résultat est autour de 30 40 taxul ñuy wax résultat améliorer pour jëm ci 70 60 ou 70 mais gis gis suñu gëstu won nañu

pour nous capturer mais nous avons également sur la carte universelle. pour voir nan la établi def carte universelle, établir en fonction donc de critères Nous avons ni critères yu leer objectif mais pas sur la base de critères politiques. politiques. carte universitaire nous ñu samp ay université région région donc il fallait que nous nous yooyu mais nous avons dit gis ni dafa am par exemple ministre de xam ne ñëw rek ci une vision qui ñoom ci xalaatu Nous doxal lu carte universelle Nous gis une tabax sans discuter avec sans ñu waxtaan ci c'est-à-dire que nga waxtaan invité Nous mhm. waxtaan nous nga wo ki ko de nga ni ah yow xalaat ci ci man kat université boobu kat nii laa ko bëgg a tabaxee lii la ñu fa xalaat ak xalaat yow leen moo ci seen xalaat ñu indi ay borom kàngam borom xam-xam ñu toog saytu loolu ñi nga xam ne seen xam-xam foofu la jëm mais su fekkee ni yow dangaa dem xalaat sa xalaatu bopp ñëw nag invité nit ñi pour ñoo ñu mën nañ ñëw toog. déglu la déglu la mais boole woo leen ci. kon université yu tabax yëpp loolu la demee. amul lan la wax benn boo xamee ni woo nañu ñëw ni kaay ñu waxtaan nan lañ nan ngeen gisee mbir dañuy ñëw rek. def seen programme ñëw daal di invité la ci séminaire nga ñëw toog boo ñëwee toog ak ñeneen ñoo xam ñoom la ñu invité woon ngeen ñëw toog ku nekk euh, voilà ñu leen valider leen nii ngeen valide ku nekk dem sa yoon mm-hmm. mais bu ma dellu suwaatee ginnaaw ñun bi ñuy waxee carte universitaire ak yooyu yëpp dañ ci boole woon ni chaque année war nañu tabax lu mat 500 cent maanaam dañu amoon benn programme boo xam ne programme 500 et quelques classes la nous avons le protocole 2011. bi nga xam moom la nous ko ah, classe chaque année diggante université Gaston Berger de Saint-Louis université bu euh, Dakar. Dakar université Alioune Diop bu Bambey ak université bu Thiès ak université bu Ziguinchor chaque année war nañu tabax temps de classes. Buñ tabaxé classe yoy yip. à l'horizon 2017. nous avons ci tolloo donc dina permettre bachelier yi université yi nga xamé ni tabax yoyu def nañ ko fa dina leen mëna absorber yamuñu ci lool ñu ni dañ ci wara boole également un programme de recrutement d'enseignants conséquent parce que bo ñëwee ñun ci suñu taux d'encadrement boko comparer ak taux d'encadrement bi nga xam mom la UNESCO wax un enseignant pour 30 étudiants ñun dañoo nekk ci un enseignant pratiquement pour 66 à 70 étudiants. dépasse ngeen taux bi quoi. non de de presque. deux fois doublé nañ ko bay waji egg ci deux deux fois et demi même. place assise yi dafa tuuti infrastructure yi nga xamee ni ci war la ñu war maanaam ci la ñu war a tàggatee xale yi muy lay salles de travaux pratiques les salles de travaux dirigés dafa doyul amphithéâtre yi nga xam ne fa la xale yi war a jàngee dafa doyul. dégg naa recteur nee na treize mois ngi nii ñu doon xaar ay infrastructure ba tey ji ba léegi ñuy waxante yow xale yi di bëgg dee jàngalekat yi bëgg dee ci chapiteau chapiteau yi maanaam dañu ne woon daaw comme dañu war a am programme pour tabax ay euh,

ñu bàyyi ba école ubbi ba nit ñi commencé digg jàng ñu ne dañu war a commencé programme de réflexion alors ñu ni kon comme mënuñu tëj école yi su saal yi nañ dem tabax ñaari chapiteau benn chapiteau pour fac droit un chapiteau pour faculté de sciences Les yi di dugg di jàng di xëm tàngoor boo xamee kenn mënul wax nu mu démé mais chapiteau yooyu. mais nag je pense que fofu Malik, non même lolu man engagé doit prendre ses responsabilités et sévir contre les entreprises yu gagné marché yooyu. recteur wax na ne ku nekk na situé responsabilité mais ñi gagné marché yooyu 13 mois de retard mais dafa c'est excessif. loolu kenn mënu ko comprendre dans un état normal loolu l' état doit prendre ses entreprise yooyu waratul gagné benn marché Sénégal bu nekkee dañoo jub nag ci jub laay wax bu nekkee dañoo jubal loolu c'est loolu tamit c'est l'élément qui ci jubal entreprise bu gañee marché 13 mois de retard bu nekkee ne état bi li ko waroon lépp tamit def na ko xaalisam mat na lépp mat na loolu tamit dama koy wax. bu nekkee ne entreprise moo tey def 13 mois de retard dañ leen war a top topp leen ñu fay ñu entreprise yu tabax loolu parce que réflexion rek warul mën a. voilà mais mais <laughs> non non xam nga Pape non seulement dafa li wax c'est tellement vrai mais entreprise yooyu. Ah. non seulement éjecté wul leen mais dañ leen joxaat marché ñu gañuwaat. parce que boo parce que gis nga boo demee université boo demee université euh, Assane Seck bu euh, Ziguinchor foofu ay lay woon ministre bi Mary Teuw Niane daanaka xuloo na fa ak. waaw xuloo na fa loolu moo yor directrice agence maa ngi koy fàttaliku. parce que effectivement heure bu ñu waxtee ne ñoom ba mu joxe dele ni dele bii kat war nañ ci pare pour liggéey pour euh, tel infrastructure soo ñëwee fa nga fekkoon liggéey fa nga koy fekkaat. te dara du ko ci fekk dara. kooku nag diggante état mais dans un non mais dans un état normal. bu nekkee ne lépp dafa jaar ci yoon ñu teg suñu kanam dëgg ak jub. liggéeyal askan bi lolou xalaatoo ko def ben deuk quand même il faut. mais nag Pape du fofu rek de non affaire bi fa wulee ñaay parce que gis nga li am ci euh, amphithéâtre ñuy wara a réfectionner ak yi am ci infrastructure yi nga xam dañ ko wara tabax mu nekk ci yeneen université retard bobu ci am ak façon bobu ci am ak ni mu liggéey ni mu xawee jaara di yoon loolu moo am ci logement enseignant yi nga xamé mo nek nekk Mermoz. c'est-à-dire. parce que bo démé xam maa ngi lay wax né la sank né la ci 2011 bi ñuy def euh, sumbu suñu grève bi bay signé protocole d'accord daf ci am lenn lo xamé ñun. ñun la jubloon muy bokon na ci euh cité deuxième cité des enseignants bu Mermoz. Uh-huh. nga xamé ni dafa tabax tabax bi dafa am entreprise bu ñu ko joxon Thomas yi mu nek fofu lu mat presque tok na lu mat juróom-ñaari at wala lu ko ëpp fukki at daana ko fa mu yemoon la yam nous 2010 lañ ci un point de il faut ñu mais ben leen ko égaler. la fa mais dafa dafa parce que da ngay ñëw dugg ci benn kër deuxième cité bi kër dugg électricité bi ñu ñun dañuy Nous ESP mm-hmm. mais si nous pour gis la fa xew dañu ni juge et partie nañu dem wuti entreprise mu ñëw defar boppam expertise wax ñu ni lii moo fa xew ci wàllu ndox mi muy SDE def ko ci wàllu courant mais conclusion yi jox nañ ko ministre bi ministre bi effectivement woo na agence bi <laughs> mais agence bi du ñëw mukk da doon jël benn fil courant nga xam ne da nga koy damm comme ni ngay demee bantu bale nit ñi ku dëkk ci biir kër rek da ngay dox ci benn karo mu yàgg rek bu tooyee tuuti nga tëb ndax maas amul fenn la benn appartement boo xamee ni ñëfa dëkk dellu siwaatuñu pour dindiwat complètement l'installation électrique tabaxaat ko waxuñu nak ci walu plomberie bi que fi mu ne boo demee am ci ay bâtiment yo xamé ni soo demee seen plafond daanu na am ci ño xamé ni bâtiment yo xamé ne da ngay dugg fekk fa jaan ci biir kër gi jaan ñaaw ci biir kër gi ñoo ak ñoo ngay photo yi buñ ko wedde ñu génneel leen ko donc ndox mi biñu démé ba analyse wa SDE ñeu defal sen bopp analyse de qualité de l'eau lañ fa fekk man sañu mako wax ci télé

lay plomberie bi la muy yàq ci ay fer ci biir kenn xamul nu mu toll. yan fer sax ku ma ku attana def courant boobu kay yan fer sax nga def ci ci ci ci ci ci mbir mi. jeex na yan xam naa fu la fer de dix nga defa fer de six. donc loolu nag entreprise yooyu ñoo ko ñoo ko yor te entreprise yooyu nga xam ne ñoo nekkoon foofu. ñoom ñoo gañewaat mais quand même <laughs> laaj dafa jot ana état bi. ñoom ñoo gañewaat marché. comment non mais entreprise yooyu ñoo gañewaat marché bi donc buñu ñu swaté ci lool donc ñun dañu defone ay dañu téggone ay manam ay djégo euh, di wax état bi ne ah li boo fa eggee su féké ni bëgg nga do amati problème bachelier nañu tabax li ci tabax buñu ñu nañu recruter li ci ay enseignants ñu démon ba nga xamé ñun suñu bop ñoo waxone ne léegi bëggatuñu def heure complémentaire heure complémentaire ñëpp xam nañ ñax na dé nga liggéey. après dañ la koy fay ñu fay la sa xaliss nga dem def ci lène mais ñun ñoo dem ni état bi xaalis bi évaluer nañu heure complémentaire yi toll na ci temps de xaalis dañoo bëgg nga transformer ko poste ñu recruter ci ay jeunes waxuñu rek ñu recruter ay jeunes mais dañoo bëgg trans euh, heure complémentaire yi ko transformer bañu recruter ci ba paré yow sa bop nga am ben programme de recrutement pour que ñu egg maintenant inverser les choses de telle sorte que léegi dañuy tollu ci phase bo xamé ni 70% enseignants yi ay permanents lañu ñu moins de 30 ou 30 pour vacataires alors qu'actuellement c'est l'inverse. cest à dire université. actuellement la fa am ci vacataire. presque à 60 ou 70 vacataire, le 30 enseignant. Moi, je suis am Dakar moo am ci université euh, bu bu suis à am ci Thiès à am je suis am fépp. expliquez le téléspectateur vacataire enseignant différent. xam nga vacataire mooy ki nga à ni. Euh, te sax ñun terme bi dañ koy xaw galvaudé parce que vacataire bu fekkee ne dañ koy jël ci terme bu normal bi mmh. dafa am maanaam dans le système LMD bo jëlé nga jël par exemple ben liguey kat bo xamé ni da dafay liggéey feneen même comme dañu bëgg professionnaliser également njàngale nga dem jëli ben liguey kat bo xamé ni dañu ñëw jox ko ay cours kooku vacataire lañ koy jappé parce que moom mi ngi liggéey feneen ba pare mais fi ñun dañoo dem ba ñangal mi ëpp doolé ba mënatuñ ko ñun yor donc ñu jël ay étudiants yo xamé dañu nek dañu am sen ñu soit ñoo nek sen euh, seen processus euh, ay doctorants lañu wala ño xamé ni dañoo soutenir sen thèse ba paré amuñu fuñ def ñu jël leen ñoñu tuddé leen ay vacataires jox leen ay enseignement ñoñu bu fekkee no da nga leen jox enseignement sax ba paré di leen fay waxtu bu jotté nga fay leen ñu mëna wax mais bo démé par exemple ma jox la rek benn exemple mu daw Saint-Louis.

calendrier universel parce que tout simplement nous délibérer parce que vacataire. yi. ñoo bloqué notre mais à juste raison. parce que fayuñu leen mais à juste raison. parce que dans les wara a fay liggéey soo liggéey ba pare bu lee bu jeexee dañ la war a fay sa xaalis waruñu la fi toog la di la xaarloo la ay arrêté bi génnagul ak te arrêté bi de na ci circuit bi dafa yéex ak ainsi de suite loolu moo dul yoon c'est-à-dire que il faut que nous mettre en place au niveau des universités des mécanismes yoo xam ne permettre ñuy fonctionner de façon fluide maanaam kiy jàng ki xam ne dafa war dafay jàngale te du du permanent mhm. di vacataire bu jàngalee bu heure am jeexee mu dem ñu fay ko mu dem noonu ki nga xam ne dañ ko invité mu war a jógee bitim réew ñëw participer ci ay jury de thèse mhm. su paree ñu fay ko xaalisam mu ñibbi te ci karaatu fii da ngay gis koo xam ne dañ koy invité mu ñëw jógee bitim réew ñëw pour bokk ci jury de soutenance ba ñibbi lu mat ay ñaari weer ñetti weer ñu doo xool nu ñu ko fay. amul benn mécanisme. boo xam ne teg nañ ko mouvement d'humeur lan moo ko indi. léegi nag ci mouvement d'humeur ñu egsi ba foofu. donc ñun jéego yi yëpp dama doon wan rek dafa am jéego yu bari yoo xam ne dañu ko tegoon. Uh-huh. mais mu nekk nag lépp ay protocole d'accord nga xam dañu ko signé mais bi ñu demee ba 2015 ñuy dem ñu gis ni état bi chaque année ngeen def grève. protocole d'accord parce que nous, avons dañu am benn philosophie moy légui état au Sénégal da ngay grève pour signer protocole grève pour ñu appliquer moitié protocole nga gréwaat pour ñu appliquer beneen moitié protocole <laughs> donc non, lay démé léegi donc vous xolé en 2011 ba 2015 xex bi dafa taroon ci diggante enseignement supérieur le gouvernement bi ba 2015 ci y a ni dal lañuy tok ñu

mooy seen grève bu métti boobu. bu métti boobu ci la loi cadre bi amee woon ak yëpp bi ñu demee diggante 2015 ak 2016 benn at la. Mhm. boo signé accord en 2015. lan ngeen signé woon seen retraite yi la jëmoon wala ci lan. lépp nga dañuy retraite yi amoon na ci benn benn pàcc la ci woon. mais amoon na ci wàll boo xamante ci wàllu sant bi la amoon na ci wàll boo ne dañoo waxoon nañu recruter ay enseignants yu doy amoon na ci wàll boo xam ne dañoo waxoon nañu def ay euh, nañu tabax et ay infrastructure ainsi de suite donc il y avait à peu plusieurs près accords. plusieurs points la woon d'accord ñu ñëw 2015 2016 ñu gis ni accords yooyu yëpp amul leen luñ ci doxal mu indiwaat beneen garaaw bi ñu defaatee nag garaaw bu boobu ci la ay lay woon premier ministre daal di woote ni bii paa man maay woote maay jiite waxtaan bi Wo Mahmoud Saleh ministre Mahmoud Saleh mu ñëw fekkee waxtaan bi du ministre conseil woo ministre Abdou Fall mu ñëw fekkee waxtaan bi woo ministre Brima Mangara ministre du budget du budget fait ñëw fekkee waxtaan ministre de l'économie et des finances Yabal, son premier conseiller technique numéro un mu ñëw fekkee waxtaan bi ñu woo suñu ministre enseignement supérieur commencé waa ba fekkeewu ko waaye bañ ñëwee ba ci digg bi dab dabal na mhm. fekk si ñu woo Moustapha Diakhaté

non seulement mais également pour se conformer au système LMD d'ailleurs loolu moo tax boo xoolee exposé des motifs mm-hmm. ministre bi expliqué na leer ñu ni kon nañu defal réforme des titres bi ñu d'accord ci kàddu ñu ne ah kon daañu ko appliqué tel date appliqué wuñ ko wala appliqué nañ ko appliqué nañ ko waaw mais nag mu am écueil bu mag bu ci am ñaar yu ci am benn bi mooy chercheurs yi dañ leen jëlul en charge les chercheurs ne sont pas Chercheur Malick bàyyi ko mu chercheur rek yow tamit nag. non xam nga non c'est que xam nga système enseignement supérieur ni muy doxee noonu la. Ça mhm. est dire que ce sont des enseignants chercheurs. ok donc chercheurs yi ci biir lañ bokk ba pare également ñoom dañuy jàngale. ñoom ñu nekk IFAN par exemple ak yeneen chercheurs yi nga xam ne dañ. jëluñu leen en compte ci réforme des titres ci réforme des titres. d' ailleurs ci moom mooy suñu combat nii bon ñoo ngi ciy dox ñoo ngi ciy waxtaan am na ci ay jéego yu ñu commencé def nii mais ñoo ngi koy continuer daal mais jëluñu leen en charge

rang exceptionnel ah waaw salaire bi day ñu ni kon il faut mu am parce que bo démé ci ñun bo jëlee suñu bulletin de salaire da ngay gis toujours ñaari indice lañ lay defal mhm. ce que l'on appelle l'indice grade ak indice traitement mom nak ñom nak 1068 da fa nek indice grade bokkul ak indice traitement té matu ñu 40 personnes ci Sénégal yëpp ñu wax leen ne leen nañu créé indice bi 1124 parce que calculer nañ ko def nañ ko yëpp mhm. mënuñu fexe ba defal ñuko depuis bobu légui bindina man sama bop bindina ba tey jii ba léegi may waxante bind lettre officielle yone ko ministre du budget ba léegi maa ngi xaar tontu aw pour wax ko rek nee ko ministre enseignement supérieur mom tamit fofu daf ci def daf ci def nga ni erreur parce que pour man euh, doxantu yi muy doxantu di dem di seeti ay visite de chantier amna lo loo ci biir kërëm lay xewé manam fièvre bi ci biir kërëm la grève bi ñu def grève ni, ñong koy grève enseignement supérieur donc

ah premier ministre woote na. altine altine ngeen war a dem gis ko. altine. incha allah ah moom lañ jàpp. mais léegi si retraite lan mooy. problème problème problème bi bi ñu ñëwee ci retraite bi. dañoo léegi moom ngeen di gën a coow. waaw xam nga parce que bi ñu demee ci retraite bi parce que tamit dafa xaw doy waar Pape parce que xam nga nit bu fekkee ni yàlla daf la daf la daf def nga jël sa jamono jëpp jox ko askan. Mhm. parce que da ngay enseignement supérieur pour nga def sa thèse doctorat dafa yàgg donc amuñu temps wu yenn yi da ngay sa àddina bépp da nga ko jàng àddina bi da nga ko gëstu mhm. di encadrer di liggéey mu comme ni la ko mu nekk liggéey bu métti parce que da boole njàngale ci condition yu métti mhm. ndax barewu leen doyewu leen étudiants yi bare nañ amu leen ay bureau ICAT ñaata étudiants moo fa nekk. daanaka ñoom ci quatre vingt dix mille étudiants. quatre vingt ñaata lañ ko prévoir dix sept mille lañ ko prévoir na après def nañu ay infrastructures yoo xam ne. mais waaw mais yeneen ci quatre vingt dix mille quatre vingt dix mille daanaka étudiants yu man yoo xamee ni bokkul te quatre vingt dix mille yooyu enseignants yi weesu wuñu mille cinq cent. mille cinq cent enseignants enseignants képp. te mille cinq cent étudiants pour mille cinq cent enseignants te mille yooyu.

le professeur assimilé bi ont le droit encadrer ay thèse bu avons le droit d'encadrer amoon droit encadrer thèse encadrer master mhm. avec réforme bi sax la ñu wax léegi ni euh, les maîtres de conférence mën nañu encadrer euh, master mais si vous utilisez ko da da nga toog vous euh, utiliser norme CAMES rek encadrer même yow master da nga koy sous la supervision mhm. d'un professeur alors léegi pratiquement dañ ci jeexutal mi si nga wax ñu. léegi léegi nag rëtt bi donc bi ñu ñëwee rëtt bi xam nga dañu d' accord ak état bi ñu ne waxtaan bi ma lay wax ci premier ministre moo ko jiite bi ñu demee ñoom seen bopp ñoom ñoo defal seen bopp ay calcul. Mhm. toog ci seen biir jël seen i ay techniciens jël seen i experts dem gëstu calculer ñëw nañu ah ñun kat dañ leen di proposer yéen léegi comme xam nañ ni ay jàmbaar ngeen dañ leen di proposer léegi retraite à quatre vingt cinq pour cent de votre dernier salaire ñu ne ah. ñenn ñu ko jox de daañu alhamdulilah rabbil alamin. retraite à quatre vingt de de ton salaire. de ton salaire. très bien en su maintenant ak yenn mécanisme ñun bi ñu ñëwee mais ñu wax ko suñu ñooñu gaa ñëpp kontaan d' accord léegi premier ministre ni ah comme noonu la demee dama bëgg ñu régler problème yëpp ba mu des problème retraite bi ndax dañuy def conférence sociale au mois de juin mais bu ñuy dem mois de juin bëgguma ñu wax fa leneen lu dul retraite ah la yoon ñu loolu rek la ñu soxla.

mais ñu tax dégluwuñ nek ci jalte ak ñom ba mois de février ñu dem Thiès dafa benn bureau national allergie fofu nak gaa ni luy jot jot na nañu déposer préavis de grève fofu mais les retraites bi lan moy seen lan ngeen ci moy seen principale revendication non xam nga retraite bi biñ ñëwé biñ démé ba ci conférence sociale bi. Mhm nguur gi bi ñu ñëwee dafa ñëw ni nañu dem conférence sociale bi dem conférence sociale ma ni Mansour Sy ministre Mansour Sy yow la ñu dénk mbir mi mais conférence sociale ñaari fan la fa demee ni, du baax parce que dafa bari ay pàcc maanaam état bi secteurs yi dañoo bari ku ci nekk nooy gisee ak li say spécificité ñu ni kon nañu wax ñuy def des travaux en amont pour waxtaan ak secteurs yooyu yëpp ba d'accord ci kàddoog ñoom Mhm. nga xamné ne bu ñu conférence sociale dañ ñëw rek adopter ñu ni d'accord Mansour ci génn def leneen lu lu bokkul ak lool donc amul réunion yo xamné def nañ ko bañu ñu egg ci conférence sociale bi ñu egg ci conférence sociale non seulement lañu ñu waxoon respecté tuñu ko mais dañoo ñëw wax ñu ne légui da ngeen di ñëw cotiser 3 cotiser 4 cotiser 6 pour que après boo demee retraite nga loolu boo ko cotisé pendant fukki at ak juróom so demee retraite après di nga am 50% de ton salaire mané ko ministre bi ko loolu yow xam nga ni loolu wax ju yoon manam parce que ben li nga ma wax ni ñun def nañu calcul yi xam nga loolu lan lay signifier moy manam assistant bi doog a ñëw dinañ ko couper 95000 ci salaire am daana ko fukki junne ak juróom-ñeent mhm. professeur bi nek ci bu mujj bi daan ko retirer 184000

di mukk ci crâne moo loolu moo tax ma bëgg leen wax leen Sénégal gis nga erreur yi Sénégal di def <laughs> gis nga xoolal bi ñu defee gis nga bi ñu defee bi ñu bi ab euh, président Abdoulaye Wade ñëwee xam na Abdoulaye Wade nag nag ndeysaan ku ku ku yëwan la maanaam dafa mën xam àqul liggéeykat bi mu ñëwee enseignant la wala mais xamuñu est-ce que xam ñoo ci gën a tuuti la ci ñu yokkal mu ñëwee magistrat yi la jox indemnité de judicature jox leen huit cent mille dem ci préfet yi mu jox leen cinq cent mille mm-hmm.

ni légui comme état bi da fay fay indemnité de logement. combien perçoit un professeur d'université man nag Pape salaire dafa dafa dafa neexul wax mais dama la bëgg xam rek ne la gis nga professeur bi nga xamé ni moom moo xëdd kaaba gi laa wax. ah amul 1 million quatre cent ah bon 1 million quatre cent baax na ci réew non dama la bëgg xam rek ne la ki professeur bi nga xamé ni moom moo xëdd kaaba gi laa wax. moo uh-huh. jeexal lépp. Uh-huh. donc da ngay kon da ngay wàcc jëm suuf te nee naa fii. waaw waxtaan leen altine ak premier ministre. nee naa la yooyu matuñu quarante personnes. waaw waxtaan leen ak. premier ministre ñun parce que ñun premier ministre ngeen waxtaan. puis ñu trouver solution pour eh, sauver l'année pour bu ngeen bañ am problème. Pape ñun uh-huh. bi moo gënaatoo xam ni. Uh-huh. ñun suñu problème yëpp moo doon. Uh-huh. ñu lal waxtaan. très bien. léegi ñu ci jeexitalam tam comme waxtaan bi lalu la altine incha allah premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne Euh, dajé gi yéen ñi waxtaan ñu xol ñu ñuy sauver année bi parce que dina tax euh, sénégalais yu bari bari seen xel dal tax université bari na coow trop mais nañ fexé dal bu sauver euh, li nga xam modi année scolaire mu baña am ay coow. lo rek lañu ñaan. lo lañu ñaan jërëjëf malik di sant Ousmane Sonko mi fi jaaroon première partie son livre est disponible sera disponible hein, dès peut-être lundi pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation alors moi je vous donne rendez-vous euh, samedi prochain pour une autre émission samedi mag incha